من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن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 gisoon nañ ci fi nga xamantene ne moom mooy mbëmbëstal bi nga xam ne moom la ci def bi nga xamantene bi biñ ci defoon ci maanaam ubbi gi nga xamantene ne moom la ubbi woon téere boobu muy kitaabul xayd ci mu wax ne bismillahi arrahmani irrahim kitaabun alxayd wa qawlullahi taala wa yasalunaka an almaxidi qul huwa ada ila qawlihi wa yuhibu almutatahirin maanaam téere la boo xamantene ne maanaam ci wàllu mbërëg lay wax ak di leeral waxu bi nga xam ne moom la buur yàlla subhaanahu wa taala wax ci bi nga xam ne aaya bi mu nekk ci sooratul baqara muy wax ne dinañu la laaj ci mbirum mbërëg waxal ne moom kat lu ak lu ñu sibla manaam ak sobe la euh, te maanaam ba wax ji nga xamante ne fi lay waxee ne wa yuhibbul mutatahhirin te dafa sopp ñi nga xamante ne ñoom ñuy dégg jéggi day ci laab loolu gisoon nañ ko gisoon nañ ci mbëmbëstal googu ay leeral ci ay mbir yoo xamante ne dafa aju ci wàllu euh, mbërëg ak ay atte yoo xamante ne mënta ñàkk ñu xam ko ci ñu ubbee ci bunti téere mbërëg gisoon nañ ci tamit baabun kayfa kaana bad'ul xayd wa qawlu nabii sallallahu alayhi wa sallam hada shay'un katabahu llahu ala banaati aadam maanaam naka la bunt bi nga xam ne moom moo doon wax naka la mbërëg tàmbalee ak wax bi nga xam ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan eh, moom kat mbërëg mbir la moo xamante ne buur yàlla la wa taala moo ko dogal lu mu nekk ak lu lu mu gàll ci loos ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomi aadama yu jigéen ñi alayhi salaatu wassalaam eh, waxoon nañ ci wuute gi nga xamante ne moom la moom moo ci amoon te wax ji nga xam ne moom la indi bi mu naan wax qaala baaduhum am na kenn ku wax ñenn ci ñoom wax nañ te gisoon nañ ni wax jooju ki ko waxoon mooy sayyidna abdullahi ibnu mas'ud ak sayyidna sayyidatna aisha bint abou radiyallahu taala an jami' ne waxon na ne ka kaana awalu ma ursila al hayd ala bani israil di wax ne mbërëg ci ñu mu jëk wàcc mom moy wa ngir banu israil ak hadith yen waaye waaye imam al bukhari rahimahullahu taala leralon na fofu ne xadisu yenent bi wa hadith an nabi sallallahu alayhi wa sallam akthar waxu yenent bi nak sallallahu alayhi wa sallam mo gëna a moo ëpp doole te moo gën a dëgër te li mu wax gën naa matale maanaam moom mooy ne wax jooju moom mooy ne kon mbërëg mi ngi tàmbalee ci mboolem doomu aadama yi rek la amoon gisoon nañ ci euh, baabul amri bin nufasaai ah, baabul amri bin nufasaai na bu fekkente ne dañ ko boole ci baab yi ndax dafa rot ci lu ëpp ci tiir yi euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon ba mu ci riwaayaatu euh, abu dhar ak abul waqata alhara abu dhar alharawi ak abul waqt alharawi ndax ñoom ñaar ñoom ñoo jëree ci ñetti sëriñ al kushmayhani al mustamli ak as-saraxsi ñoom ñett ñii ñoom ñoo jëlee ci euh, al euh, imam muhammad euh, ibnu yusuf al matarak al firabri moom moo jëlee saxe bi ci imam al buxaari alayhi alal jamii rahmatu wa ridwanul baari gisoon nañu bunt bi nga xam kon maanaam bunt boobu mooy Euh, buntu digal gi nga xam ne moom la ñuy digal ñi nga xam ne ñoom ñooy gis gësin su fekkente ne dañoo amee gësin wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñooy gis mbërëg su dee dañoo amee mbërëg ci leeral bi nga xamante ne moom lañu waxoon ne euh, dafay leeral ne baatu nifaas dañ koy wax euh, gësi dañ koy wax maanaam dañ koy wax fekk léeg dañ ciy jublu mbërëg waaye léeg-léeg waaye tamit imam al-Bukhari rahimahullah comme amul xadis boo xamante ne dafay leeral mbiru mbërëg mbiru gësin moo tax léeg-léeg muy indi ay bunt yoo xamante ne daf ciy tudd baatu gësin donte du ci indi xadis yu mel noonu ngir ne leeral gi muy leeral ne atte yi gësin ak atti mbër mbërëg ñoom ñoo bokk atte gis nañ xadis sayyidat Aïcha bi radiyallahu taala anha boobu nga xamante ne nee na moom ci la euh, bi ñuy aj mooy bi ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekkee muy jooy fekk boobu génnoon nañ bay aj euh, mi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maalaki anafisti anufisti maanaam ana lan moo la dal xanaa du mbaadu dangaa gis say mbërëg dégg mu ne mu ne ma ne ko waaw na am nee mu ne ko inna hada amrun katabahu llahu ala banaati aadam faqdi maa yaqdi alxaaju gayra an laa tatuufi bil bayt maanaam mu ne ko ndax euh, mu ne ko kon nag loolu mbir la moo xam ne maanaam gisu mbërëg loolu garaaw du dara mbir la rek moo xamante ne borom bi subhaanahu wa moo ko dogal gàll ko ci loosu ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu maam aadama yu jigéen ñi alayhi salaatu wassalaam mu ne kon nag na nga def lépp loo xamante ne kii ak dara ko def waaye yow lenn rek lañ lay tere mooy bul tawaf kaaba gi moom kon loolu moom mooy li nga xamante ne xadis euh, boobu la ci indi gis euh, gisoon nañu euh, tàmbali woon nañu buntu baabu xaslil xaaidi rasa zawjiha wa tarjile buntu raxas bi nga xamante ne moom la kii gis mbërëg di raxas boppu boroom këram ak di ko peñeel waxoon nañ ne imam al buxaari rahimahullah dafay indi benn tarjuma di wax ne bunt bii wax nangam ak nangam ba pare buy indi xadis mu daal indi xadis boo xam ne ci benn mbir rek lay wax ngir day leeral ne yooyu yëpp ñoom ñoo bokk ay àtte te loolu yëpp dañuy duggaale ci biir loolu moo tax mu indi xadisu sayyidat aïcha bi radiallahu taala anha bi nga xamante ne mbiru peñe rek la ci wax waaye waxu ci mbiru raxas ko mu ne kuntu urajjilu rasa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana haid man de doon naa peñe bopp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk man maa ngi doon gis mbërëg xadis boobu kon moom mooy bi nga xamante ne moom la ñu mujjee gis léegi kon nag insha allahu taala ñu daal di koy yeggale maam ñu yeggale bunt bi ci bunt boobu ba tey bi bil al muttasil fi awalil kitaabi ilayhi haddathana ibrahim ibnu muusa te moom mooy ibrahim ibnu muusa ibnu yazid ibnu zazal at-tamimi dàqante lam nekkoon abu ishaq te moom mooy abu ishaq الرازي Euh, rahimahullahu taala dañ koy wax as-saghir waaye nekkutoon ku ndaw moo tax mu am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañuy bañ ku ko tuddee as-saghir ngir ne ku màgg a màgg la woon euh, imam abu zur'a ar-razi rahimahullahu taala nee bindee naa ci moom téeméeri junni xadis te moom moo gën a dëgër te gën a wóor maanaam ki nga xam ne moom mooy imam bu màgg boobu di aboubacar ibnu abi shayba borom musannaf bi rahimahullah loolu day wane ne dëgg-dëgg ku màgg a màgg la moo tax euh, euh, boroom xam-xam yi rahmatullah mbooloo ci ñoom doon bañ ku koy tuddee euh, ku koy tuddee al assaxir waaye loolu da la woon la goo xamante ne daf ko siiwe woon moom imam al buxaari yi ak imam muslim ak imam abu daawud ñoom ñoo soloo ci moom directement amma imam at yi moom dafa soloo ci moom waaye dafa am ku dox si digganteem ak moom maanaam dafa am intermédiaire bu dox euh, ci seen euh, diggante moom mu ngi génn àdduna ci euh, wàllu deux cent trentième année yi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam mooy ci deux cent année ci bi muy tàmbali wala bi muy jeex ci la génn wala bi muy waaj a dugg bokk wala bokk bi muy waaj a jeex ci la génn àdduna rahimahullahu taala kon koku mom moy sëriñ bi nga xamantene imam al-Bukhari rahimahullah solo na ci mom suñu hadith bi te imam ibnu majah mom ak imam an nasai solo wuñu ci mom ben hadith ci sen sunani yi qala ne akhbarana Hisham ibnu Yusuf te mom moy Hisham ibnu Yusuf as-San'aani dàkkantaram nekkon Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman as-San'aani rahimahullah taala nga xamne qadi lawon te bokon na ci ñi nga xamantene ñom ay. Euh, furs lañ maanaam qaadi la ca sanaa maanaam mooy euh, euh, capitalu Yemen moom mooy sanaa moom lañ sanaa xaw ma lañ koy wax moom moo fay moo fa nekkoon imam alxaakim rahimahullahu taala dafay wax ne siqatun mamuun rahimahullahu taala ne maanaam ku wóor ku dëgër la ba pare ku ñu wóolu la imam abu yaala dafa wax ne siqatun muttafaqun alayhi rawaa anhu l a'immatu kulluhum a'immatu kulluhum maanaam moom ku wóor la ku dëgër la waaye imam yépp soloo nañ ci moom maanaam kon ku màgg la rahimahullahu ta'ala kon moom hisham ibnu yusuf as-san'ani imam al buxaari ak asxaabu sunan ñoom ñoo soloo ay xadiisam maanaam moom donte du sëriñu sëriñu ñoom imam al buxaari la rahimahullah imaamu muslim moom solowul ci moom benn xadis mi ngi génn àdduna 197e année ginnaaw gàddaayu yelente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune anna mom waxna ko neena ibnu jurayj te mom moy imam bu màgg boobu di serigne bu reej ay mbir rahimahullah wax nañ ko waxat ay mbiram moy abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj al qurashi al umawi rahimahullah taala moom ñaari kunya la yor moy abul walid ak abu khalid al umawi rahimahullah taala dañuy wax ne ne moom nag Qurashi la euh, min anfusihim loolu moo gën a wóor maanaam ne moom euh, du mawla ci euh, am na ñuy wax ne mawla la waaye li gën a dëgër mooy ne ñoom ci seen bopp la bokk moom makkiwu la maanaam mi ngi génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon sëriñ boo xamante ne mboolem boroom xam-xam yi màggal màggal nañu ko ba nga xamante ne tamit bokk na ci ay jalooreem moom moom mooy moom moo njëkk bind téere ci wàllu xadis ba pare teg ko ay bunt maanaam mooy génération bi nga xamante ne ñoom ñooy génération ñoom imam Malik ñoom euh, imam moom mi ibnu Jurayj ah, ak euh, ñoom Maamar ibnu Rashid moom Abdullah ibnu Mubarak ñoom Husaym euh, ibnu Bashir al Wasiti ak ñeneen ñeneen rahmatullah alal jamii mooy génération boobu noonu moom Ibrahim ibnu Jurayj ji nag moom moo njëkk bind ci seen téere maanaam moom moo njëkk bind ci téere xadiis yi bokk na tamit ci li nga xamante ne euh, gis-gis la euh, nga maanaam bo dañu wax tamit ne dafay def tadlis maanaam màggay maam li muy màgg màgg yépp euh, rahimahullahu taala dafay def tadlis bokk na ci tamit li nga xamante ne moom la ñuy wax ci moom mooy ne moom bokk na ci ay gis-gisam ci buntu fiq mooy ne euh, daf doon gis ne mutaa dara aayu ci maanaam mutaatu ziwaaj maanaam dara aayu ci moom loolu bokkoon na ci gis-gisam waaye loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dëppoo wuñ ceeg moom ànd ak loolu yépp maanaam ku ñu màggal la te ku ñu réel la euh, nga gis ne wax ji nga xamante ne moom la mu abdu imam abdourazaq di jële ci moom mu jële ko ci imam moom ibnu juréej moom imam ibnu juréej jële ko ci ata ibnu abi rabah moom mu jële ko ci Mawlana Abdullah ibnu Abbas radiallahu taala anhuma bokk na ci yi gën a dëgër ci mboolem xeetu xadiis yi niki noonu bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu gën a fonk moom la ñuy gën a euh, màggal di ko réyal moom ay xadiisam tamit ñi ngi ci kutubu sitta rahima rahimahullahu taala mu ne qaala nee na axbarani Hisham te moom mooy Hisham ibnu Urwat ibnu Zubayr ibnu Awaam ibnu Xuwaylid al Asadi rahimahullahu taala di bokk ci banu Asad nga xamante ne ñoom ñooy euh, mbokk sayyidat Xadija radiyallahu taala anha euh, niki noonu moom waa kër Seydina Aboubacar la radiyallahu taala euh, di waa kër Seydina Zubair ibn al Awam radiyallahu taala moom dàkkant am na ñetti dàkkantaan mooy Abul Munzir ak Abu Abdullah ak Aboubacar moom mi ngi gane aduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa wa sallam euh, moom doomu euh, bay taxam la takkoon muy Fatimata bintul Munzir euh, te moom moo ko magi woon 13 ans maanaam soxna si moo ko magi woon 13 ans mm-hmm. waaye moo tax da daan jàngee ci soxna si lu bëree bëri moo tax lu ñu comme ni ñu koy gisee xadis yu bëri daf koy jàngee ci soxnaam moom. Mm-hmm. loolu tamit maanaam exemple la ci bu ñu gisee soxna soo xamante ne moom mooy yar ak jàngal boroom këram loolu am na. mu ne an urwata ibnu zubair ibnu awam muy baayam radiallahu taala anhuma muy abu abdullah mooy dàkkantalam moom mi ngi génn àdduna ci at bi nga xam maanaam mi ngi gane àdduna ñaar fukkeelu at ak ñeent ci ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tombeek jamono ji seydina Ousmane radiallahu taala an di doog a jël xilaafa gi moom mu ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu tuddee al fuqaha as muy juróom-ñaari borom xam-xam fiq yu màgg yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci jamonoy taabii rahmatullah alayhim doon jàngale diini doon ubbee di def fatwa te Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiallahu taala anhu lépp lu mu daan doxal maanaam daf daan laaj seen xalaat ci mbir moom te seen ijmaa ñoom ci benn masala loolu dañ koy dëpp dañ koy jàppee ni waa Madina yépp lii lañ jàpp maanaam imaamu Maalik rahimahullahu taala maam moom noonu la jàppee ni ijmaa waa Madina lii la maanaam bu wax naan boo ñoom ñëpp dëppoo nañ ci lii euh, loolu euh, la ci jublu maanaam moom mooy fuqahaa u sabaa yi ñoom dëppoo nañ ci masala bi te ijmaa boobu lay jàppee rek maanaam ijmaa moom day wax ne bu ñu nee am na ci lii mooy fuqahaa u sabaa yëpp dëppo nañ ci masala bi naka nonu bu waxe ahlul ilm bi baladina manam borom xam-xam yi ci suñu wa dëkk li nga xamantene mom la ci djublu mom moy euh moy sëriñ ñaari sëriñam bu ñu tuddé rabia moy ibnu abi abdurrahman ak ibnu hurmus ñom ñaar rahmatullah alayhima lay djublu bu ne ahlul qala ahlul ilm bi baladina manam borom xam-xam yi nekk ci suñu dëkk bi nee manam bu ko waxe ñaar ñoñu la ci djublu mune kon mom mune annahu mom si mom sayidna urwa moy urwa ibn zubair ibn awam radiyallahu taala anhuma annahu naka mom su ila lajna rasul lajna anena mam su ila laaj nañ ko dañ ko laaj ne ko atakhdumuni ndax dana ma ligeyal al alxaag idu aju mbeureug gi manam laj la ngir ne bi nga xamantene borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne faatazilu nisaa fil mahid manam na ngeen beru jigen ñi ci jamono yu mbeureug maanaam ak bërëb bi mbërëg yi maanaam bu boobaa laaj bi moom mooy kon moo tax laaj bi day daal di mën a jañ boppam maanaam ndax kon euh, kon ndekete comme dañoo war a ber jigéen ñi ñu war leen a ber moom war a war a war a ber wëllif kon ndax dana dagan maanaam jigéen di ma liggéeyal loolu xam ngeen ni jigéen ju gis mbërëg xam ngeen ni léeg-léeg ngeen dégg ci ay xeeti nettali wala boog ay xeeti xuraafaat euh, ak ay xuzaabilaat yoo xamante ne yu mel noonu la maanaam naan masalan Ah, jigéen lii nangam jigéen ju am mbërëg bu ko toggee day lii wala jigéen ju gis mbërëg bu defee lii nangam nangam wala léeg-léeg tamit nga gis koo xam ne da ngay dem fenn di jottalikoo ko masalan ab satala wala boog ab sijaada ndaw si naan la ah man setuma julliwuma fan fan yi ak yu mel noonu maanaam kon nga gis ni ci nit ñi rek ni ñuy xalaate mooy ne xëy na loolu am na lu ci nekk lu war a tax ba du ñu mën a euh, euh, maanaam du ñu mën a liggéeyal nit ñi loolu nag moom moo indi woon laaj bii nga xamante ne moom lañ ko laaj mu ne ndax aw wala boog ndax kon beneen laaj bi mooy ndax tad nu dana jege min nii ci man almaratu jigéen ji waxiye fekk moom junubun dafa amee janaaba qaala qaala Urwa ah, kon Seydina Urwa ibnu Zubair ibnu al Awaam radiallahu taala anhuma daal ni kullu daalika lii lépp nag alayya ci man hayyinun lu woyof la maanaam yow lii ngay wax nii moom dara moom maanaam lu woyof woyof la man maanaam nga gis ne kon ah, mu ne wa kullu daalika mu ne te ñii ñii lii lii ci lii lépp tax du mu nii daf ma ci liggéeyal maanaam man euh, jigéen ji di gis mbërëg daf ma liggéeyal ci affaire yi loolu du dara euh, walay sa te amul ala ahadin ci kaw kenn fii zalika ci mbir mi basun lu ay maanaam amul dara lu aay ci kaw kenn ci mbir yii nii loolu moom daf koy faral di wax euh, daf koo wax ngir leeral ne àtte bi ajuwul ci man ajuwul ci yow miy laaj waaye amul kenn koo xamante ne moom la am problème ci yii nii jigéen ji di liggéeyal di la toggal di la peñe di la raxasal sa bopp bi di la raxasal say tànk ak di la diw ak yi xeet yooyu yëpp mën naa am parfumé la ak ah, dégg nga di la di la defaral ay njarak ay yooyu yëpp garaawul maanaam nit ki noonu mën na laa defal lu ne maanaam mën na laa féete fu ne loolu amul benn problème mu ne moo tax mu ne ko lii yëpp man mi garaawul ci man lu woyof la ci man te itam ah, amul kenn ci kenn ku mu aay ah, loolu nag mu ne ndax axbarat nii xabaare na ma aïcha sayyidat aïchata mooy ummul muminina radiyallahu taala anha di aïchata bint abu bakar as-siddiq di ibn abi quhafa abu quhafa moom moo tuddoon osman la tuddoon ibn amir ibn amr ibn kaab ibn saad ibn taymu imu moo tax ñu naan leen ñoom waa banu taymu la ibn murra ndax taymu ibn murra murra moom mooy maamu yenente bi sallallahu alayhi wa murrata Euh, kon moom euh, moom mii di maamu yenente bi nag sallallahu alayhi wa sallam mooy maamu sayyidina abu bakar radiallahu taala kon foofu la tase ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidat aïcha radiallahu bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moom la ñuy tuddee ak tayyibatu bintu tayyib maanaam mooy ku sell ku laab ki nga xamante ne moom mooy doomi ku sell ku laab ki moom mooy ak siddiqatu bintu siddiq moom mooy ki nga xamante ne moom moo yor maqaama siddiqiya gu kawe di doomu ki nga xamante ne borom maqaama siddiqiya bi féete kaw mboolem maqaama siddiqiya yi la niki noonu dañ koy wax habibat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di soppe yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko laajee kan nga gën a sopp ci mbindeef yi moom dafa ne Aïcha radiyallahu anha ñu ne ko déedéet euh, ci góor ñi moo tax ñuy wax mu ne baayam radiyallahu anha kon moom mooy habibat rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam niki noonu mooy ummu abdullahi mooy dàkkantalam ndax eh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tuddee ndax def ni ko sa soxna yépp am na ñu dàkkantal ba mu des man mu ne ko yow yaay ummu abdullahi yow yaay eh, te amutoon doom bu tudd abdullahi am na nag ñu wax ne dañ ndax ngir doomu doomu eh, sëram magam ji mooy abdullahi ibnu zubair di magu az-Zubayr ibnu Awwam bii nii di sot maanaam Urwata ibnu Zubayr bii nga xamante ne moom moo solo suñu xadis bi waaye am na tamit ñu ne déedéet dañ ko tuddee noonu rek ummu abdullahi am na tamit sax ñu wax ne amoon na doom bu bu ndaw waaye dafa génn àdduna bu tuddoon abdullahi waaye loolu wérut li wér mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam da koo tuddee ummu abdullahi ngir ne moom dëgg-dëgg dàkkantal boobu mooy dàkkantal bi gën a yelloo ci ku màggee ni moom radiyallahu taala anha moom mooy mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yerente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidna abu hurayrata radiyallahu taala anhu moom mooy nga xamante ne moom moo ko jullee mi ngi soloo ci ay xadis 2210 xadis yoo xamante ne 174 yi yëpp muttafaqun alayhi la mi ngi ci saxih imam al buxaari ak saxih imam muslim rahmatullah alayhima imam al buxaari wéetoo na ci 54 xadis amma imam muslim wéetoo ci 69 xadis mu nekkoon moom sayyidat Aïcha radiyallahu anha annaha naka moom kat kaanat nekkoon na turajjilu daan euh, peñe maanaam taani mi ngi ci nam sa bopp rasulillahi ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa fekk moom mi ngi amim kon loolu moom mooy li nga xamante ne loolu la laye ne sayyidat Aïcha radiyallahu anha maanaam moom mooy ba lan la laye mooy suñu xadis bi weesu moom la laye mooy fi mu ne kuntu urajjilu ra sa rasulillahi sallallahu alayhi waa ana haa'id man de daan naa peñe bopp yenente bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa fekk man dama amee woon mbërëg loolu tamit moom moom la laye loolu tamit dañ ci xamee ne euh, lay day dëgër maanaam mooy ne xabaar tamit bu ñu bëggee am xabaar bu wér maanaam mënuñoo toog rek naan am na góor gu wax ne nangam nangam déedéet loolu du lay mm-hmm. am na euh, ci maanaam nettali nañ ne euh, sëñ diw nangam loolu moom du lay li nga xam ne moom lañ mën a wax mooy ne lan mooy wane ne loola am na moo tax ñoom dañuy yóbbu mbir mi dañ naan diw maanaam sayyidat Aïcha radiyallahu anha moo ma nettali ne jamono yonent bi lii daan na ko def loolu moom lu leer la gu jokkaloo gu wér loo xam ne kenn amul lu mu ciy teg waaye nag am na góor gu ma nettali am na soxna su ma wax ne am na loolu euh, loolu mooy li nga xam te ne tekkiwul dara loolu amul njariñ maanaam amul lu mu mën a lu parce que kan góor googu ku mu doon donc maanaam loolu daf koy wane beneen bi ci des maanaam mbir mu nekk day day tegu ci lu leer te dañ koy dañ koy wax te wax di mu leer rawatina bu dee mbir mi dafa aju ci diine wala boog ñuy wax loo xamante ne dafa jëm ci nitu yàlla yu sell yi borom xam-xam yu màgg yi radiyallahu taala anhum beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci jànge moom mooy ne kon jigéen ji nga xam ne dafa gis mbërëg mën naa daal di peñe boppu borom këram niki nonu li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala tuddu ko mooy baabu xaslil haid ra's zawjiha wa tarjili buntu rahas gi nga xamantene mom la ndaw si di rahas bok borom kërëm ak diko peñe loolu tamit day ci jangé ligéyel yi nga xamantene mom la jigéñ ñi di ligéyel ak di toppatoo sel borom kër yi ndax buñu xolé hadith yi ñu jotta gis ci sayyidat Aisha radiyallahu anha manam bok na ci gis nañ ci fu mu doon wax ne mom da daan parfum yenente bi sallallahu alayhi bokk na ci fi mu doon waxee ne moom da daan peñe bopp bi bokk na ci ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yu mel noonu la maanaam nga gis ne kon toppatoo gi ñuy toppatoo maanaam mooy ne borom maanaam euh, ndaw si daa war tamit di xool borom këram maanaam euh, nu muy mel maanaam ci ci biti mu koy xoolal ay yéreem di ko ko toppatool di ko toppatoo ay euh, bopp bi di ko toppatool yaram bi maanaam muy xool ndax yaram bi maanaam wéexul ba ëpp ndax diwu ndax nangam nangam ak yooyu noonu tamit dafa bokk. maanaam ci li nga xamante ne euh, loolu tamit ndaw si moo ko war a xool ci borom këram bokk naa mu ne wa rasulullahi te fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xii na idin jamono jooju mu jaawirun mi ngi dëkkaa mi ngi dëkkaale fil masjid yi ci euh, jàkka ji maanaam li muy tekki moom mooy dafa nekkoon ci i'tikaaf maanaam boobu fekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci biir jàkka ji di i'tikaaf maanaam loolu nag mooy sayyidat Aïcha radiyallahu anha ci biti ci këram la ndax jumaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu nekkee woon ak néegu sayyidat Aïcha radiyallahu anha dañoo jëlloo woon maanaam nga gis ne parenteeru sayyidat Aïcha radiyallahu anha da daan joxe directement ci biir jumaa ji maanaam da daan joxe directement ci jumaa ji moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa dem dugal bopp bi maanaam mu peñe ko ah, euh, fekk moom mi ngi doon amee ay mbërëgam mu peñal ko bopp bi bàyyi ko mu delluwaat ci biir jumaa ji nekk ci i'tikaafam loolu bokk na ci liñ ci jànge mooy yooyu mel du yàq i'tikaaf maanaam fekk nit ki génnul jàkka ji dem dox ay yeneeni xeeti soxla loolu du yàq euh, du yàq euh, euh, du yàq i'tikaaf bi loolu mooy benn beneen bi ci des i'tikaaf mooy nit ki li mën a taxaw ne ah, man dat dama fas yéene dugg ci biir jàkka ji toog ci jaamu sa borom subhaanahu wa taala benn jamono daal jamono joo xam ne dañ koy diiram waaye la ci gën a néew nag mooy ak guddi maanaam mu ne dama fay dugg wala boog léeg-léeg am na ci borom xam-xam tam yoo xam ne rahmatullahi alayhim da ngir dañoo jàpp ne maanaam jamono joo duggee jàkka rek mën ngaa yéene wala i'tikaaf ba keroog ngay génn yaa ngi ci biir i'tikaaf bi loolu tamit am na ay borom xam-xam yu ko wax rahmatullahi alayhim waaye Seydina Omar radiyallahu anhu ndax Seydina Omar radiyallahu anhu moom def na i'tikaaf boo xam te ne ak guddi rek la ci masjidul haram maanaam euh, loolu niki noonu beneen bi ci des moom mooy ne euh, euh, i'tikaaf nit ki day day daf ko lu ci ëpp weeru koor lay doon lu ci ëpp ci weeru koor lañ koy def loolu tamit beneen euh, mbir la boo xamante ne ba pare li ci ëpp tamit ci ashurul awaaxir yi lay doon maanaam fukki fan yu mujj yi loolu la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu daan dugg i'tikaaf nga xamante ne danaan dem dëkkaale jàkk ji mu mel ni genre xalwa loolu moom maanaam i'tikaaf nag buñ koy wax mooy boo nekkee ci xalwa comme waaye nag lii bu boobaa lii nii euh, lii yeneen bi sallallahu alayhi wasallam a def bu boobaa day wone ni benen firi ci aya bi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa taala wax ne wala tubashiruhun wa antum aakifuuna fil masajid bu len len euh bu len jonjoo ak jigen ñi fek yéen yéen ngi man ndax bachara li tekki moy am lien direct manam am lien bu direct mu ne bu len len jonjoo ak jigen ñi wa antum fek yéen aakifuuna yéen ngi i'tikaaf fil masajid ci bir jumaa manam euh manam lolu nak kon dañ ciy xamee ni jëf yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ci xamee ni loolu li muy tekki moom mooy bu leen jote ak ñoom maanaam bu leen jote ak ñoom comme li jëkkër di jote ak soxnaam maanaam loolu bu leen ko def fekk yéen a ngi ci biir jumaa ji loolu bu leen ko def lo maanaam yéen a ngi maanaam mooy lan mooy génn jumaa ji dem euh, jotee ak ñoom ci guddi gi dellu si waat ci sa i'tikaaf loolu la ñuy teer loolu la ñuy wax maanaam ci weeru koor ndax aaya boobu loolu moo ko taxoon a Euh, beneen bi nga xamante ne moom moo kon ndekete lool da yàq itikaaf maanaam loolu day yàq itikaaf waaye lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def du yàq itikaaf maanaam kon ndekete am lien direct maanaam ak soxna si soxna si laal day maanaam mën na laa laala mën na laa yu bëri mën naa xew seen diggante te lool du yàq seen itikaaf maanaam te lu bëri lool li muy tekki mooy di la peñeeg di la defar ak ah di la diw ak mel noonu loolu beneen bi ci des moom bi ñu ciy jàngee moom mooy ne. nit ki fu ne dafa nekk ci biir juma euh, dafa euh, dafa génni bopp bi ci jumaa ji loolu tekkiwul ne génn na jumaa ji maanaam ci kaw loolu su fekkente ne nit ki dafa ne euh, ma maanaam waat naa ne maanaam daal di waat giñ ne du génn kër gi masalan tey moom duma ma génn kër gi waaye benn tànk bi rek génn wala benn loxo bi rek génn ak yu mel noonu loolu bu boobaa kenn du ko maanaam du du tax nis maanaam Euh, du doo du du maanaam ngiñ googu amul ba amu ci bàkkaar maanaam ngir ne nam maanaam moom ci boppam génnut maanaam kon le benn partie ci moom génn loolu du tax euh, lépp génn <coughs> du tax lépp génn loolu nag euh, loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ koy moom lañ ci xame mais nag loolu am na ay am na ay sew-sew tuuti maanaam mooy comme masalante ki nga xamante ne dafa wax ne Euh, fase naa masalan fase naa sama loxol jabar masalan ku wax loolu sama loxol jabar moom fase naa ko loolu li muy tekki mooy jabar jëppee fase lu tax parce que xam nga bu dee taxaw taxaw sa tànk teg ko fee loolu mën naa nekk mais bu dee fase munoo fase benn loxo bi rek bàyyi yaram bi li des si yaram bi yëpp kon bu boobaa léppay fase alors que boo nee sama karawu jabar fase naa ko bu boobaa il suffit que mu dagg karaw gi mu dem bu boobaa yow maanaam ba tey jabar jaa ngi des yow waaye alors que boo ne woon fase naa sama loxol jabar loxo bi maanaam boobaa kenn du ne ko daggal loxo bi maanaam kon boobaa jëmm jëpp moom mooy fase maanaam loo xam ne mëni fu koo tàqale ngir ne alquran day wala yenent bi saa dañuy tuddee benn mbir euh, jëmm ji yëpp te mënta tàqali ko ne fakku raqaba maanaam buy tudd goreel jaam mu tuddee ne euh, tàq maanaam euh, maanaam tinki baat tinki baat maanaam ku ne xam na ni baat bii rek taxul ñuy wax maanaam tinki baat kese déedéet li muy tekki mooy gore jaam bi ci jëmmi boppam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yu mel noonu la maanaam comme masaral ñun sax dañ koy wax wolof yi buñ naan fi mu toll man nangami biir lay dundal xam nga loolu tegtalewul ne biir bi biir bi la ngay am loo ci dugal ne di ko dundal déedéet maanaam nit ñi nit ki ci jëmmi boppam moom moo tax ñuy wax mhm. maanaam loolu yépp dañ koy daal di kon euh, xamee ci fii nii mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam nu mu def mu ne yudd nii daf daan jege ñalal laxaa ñal ko ra sowo boppam wayétte fekk moom fii xujratiha mi ngi ci biir néegam fatu rajjiluhu moom mu daal di koy peñe fekk moom haa idun mi ngi ami woon maanaam mbir mi noonu la daan demee kon euh, loolu moom mooy ni nga xamante ne euh, moom moo mooy naa daal daal ki nga xamante ne moom mooy jigéen ji gis mbërëb kon lépp dagan nañu def ko ak moom ba mu des maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisewaat insha allah taala maanaam moom mooy ba mu des jote ak ñoom loolu daal mooy li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xaraamal wallahu mu daal di euh, bi euh, imaam al buxaari rahimahullahu taala indiwaat na ko indi na ko bokk xadis numéro 295 Euh, dina ko indiwaat xadis numéro 297 ak 299 ak ci yeneeni bunt taxrij bi gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu buntu qiraatu fii qiraat qiraati rajuli jàngu euh, waay fii xajri ci lupp imraati yi jigéenam waxyee fekk moom jigéen ji xaa idun mi ngi amee mbërëg euh, maanaam loolu day leeral ne maanaam nit ki nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy waa ji nekk tëdd wala boog teg bopp bi ci lupp ndaw si ba pare di jàng alquran mm-hmm. loolu lay wax loolu bunt boobu noonu la ko tudde bunt bii nag li nga xamante ne imaam al buxaari rahimahullahu taala li nga xamante ne moom moo tax mu nose bunt bi maanaam li tax mu tef ko mooy day leeral njàngu alqur'aanu ki nga xamante ne moom mooy ci gis mbërëg ak li nga xamante ne moom mooy wër-wërloo ci téye gi muy war a téye alqur'aan ak li nga xamante ne moom moo dagan ci moom ci wàllu alqur'aan loolu moom la ak li nga xamante ne moom lañ ko tere loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala noose buntu bi waaye bu ñu xoolee ni mu ko bindee maanaam ni mu tuddee buntu bi maanaam euh, au lieu mënoon naa wax rek ndax jigéen ji jàng ji gis mbërëg dana jàng alqur'aan ak dana ko daal. mënoon na tuddee noonu bunt bi waaye ni mu ko tuddee mooy góor gi nga xamante ne moom day teg boppam wala boog day su óonu euh, maanaam day wiiru ci ndaw si nga xam ne moom mooy jàng maanaam moom moo gis mbërëg ba noppi di jàng alxuraan loolu ana lan mooy àtte bi euh, loolu nag li tax mu def ko moom mooy ne euh, xadiis bi muy indi ngir ne waxoon nañ la ne la imaamul Buxaari rahimahullah bokk na ci ay mbiram mooy buggul di wuute sax waxin ak yeneen bi sallallahu alayhi maanaam buy wax. sax day bëgg alquran ni alquran di waxe mu tànn waxin woowu mu waxee noonu ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam di waxe mu tànn waxin woowu mu waxe noonu loolu moom moo tax mu tuddee bunt bi nii mu ne wa kaana nekkoon na abu wa'il te moom mooy shaqiq ibn salama rahimahullahu taala di abul wa'il al asadi rahimahullahu taala moom mu ngi gane àdduna ci jamono yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam at bu njëkk bi ginnaaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la gane aduna mi ngi genn aduna 82e ane ginnaw gadda gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkon ko xamante manam wa kufa la rahimahullahu taala nekkon taalibe sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala hu jàngee ci mom lu bare bare ndax mom la gënoon a takkool waaye jàngee nag ci yeneeni sahaba yu magi radiyallahu taala anhum nekkon ko xamne mom moom nañ ko gis gisat ko gisat ko ci ñi gën a màgg ci ñoom la bokkoon euh, moom ñoom lañu wax wax muxadaramuuna moom muxadaram la maanaam ci taabii yu mag yi la bokk nga xamante ne dañuy nekk xale wala bokk ñu dund jamono yeneen bi sallallahu alayhi gëm ko waaye nag jotuñu koo gis jotuñoo jotaayoo ak moom kooku ñooñu la ñuy tuddee al muxadaramuuna maanaam kon euh, moom mu ne wa abu razin wala bokk euh, ab kaana nekkoon na abu waa'il yursilu yursilu daal yónnee xaadimahu Euh, mbindaanam wax yë fekk ndaw sax nga gis ne xaadima maanaam kon xaadim baatu xaadim day dañ dañ day day day signifier day tekki booy mais day tekki euh, booy maanaam booy day tekki booy maanaam mbindaan bu góor day tekki tam mbindaan mu jigéen xaadim maanaam bu ñuy wax xaadim dañuy wax maanaam mën na tekk góor ki mën na nekk ku jigéen ki loolu moom moo tax mu ne xaadima woo mbindaanam mi daf ko daan yónni wax fekk moom xaa idun mi ngi amee mbërëg waaye daf ko daan yónni ilaa abi razin ci abu razin mooy abu razin al asadi al kuufi rahimahullahu taala turam moom mooy mas'ud ibn malik rahimahullahu taala di mawla ci abu wail bi al asadi rahimahullah euh, moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Eh, momit citaɓe yo maggi la bokkon nekkon ci bokk ci borom ngeneel yi eh, yu maggi eh, rahimahullahu taala moom daf ko daan yónni fekk mi ngi mi ngi doon gis wahiya fekk moom ndaw si wala bokk haa idon mi ngi gisee mbërëg ila abi rasin ci abu rasin bi mu ne fatatihi mu indi ko mu dikkee ko bir mus xafe ci kaamil bi maanaam mu indil ko kaamil bi waaye fa tumsikuhum waaye da ko daan téye bi ilaaqati yi ci buum gañ ko takke maanaam daanu ko téye daanul jël kaamil bi nii téye ko comme nii waaye dafay am buum buñ daan yeewee kaamil bi takk ko mu nekk ni mu mën koo téye maanaam moom loolu moom la def maanaam lii nag imam al buxaari rahimahullahu taala daf koo indee nii ngir leeral ne euh, ngir leeral ne kaamilu alquran képp koo xamante ne daf koo yor ni nga xamante ne noonu la koy noonu lay def maanaam kaamilu alxuraan ci jëmmi boppam dafa xaraama téye ci koo xamante ne yorul njàpp ki noonu ki nga xamante ne dafay gis mbërëg niki noonu ki nga xamante ne dafa am janaaba waaye ki nga xamante ne moom mooy euh, kii li nga xamante ne moom mooy lu ñu ko takkee loolu dagan naa téye maanaam loolu dina dagan nga mën koo téye loolu moom la loolu benn loolu lay lay loolu lay leeral fii beneen bi ci des moom mooy ne euh, bu ñu xoolee bunt bi ni mu ko tuddee ndax waxoon nañ la tamit beneen xaayida ci ni imaam Buxaari di doxale rahimahullah mooy euh, taaliqaat yi muy indi maanaam xadis yi muy indi nga xam ne ay muallaqaat lañ xadis yooyu ñaari ak maanaam maw yi nga xam ne ay mawquuf lañ yi nga xam ne daf koy faral di indi yooyu dañuy leeral souvent maanaam li imaam Buxaari yi bëgg nga comprendre ko ci ni mu déggee maanaam ni mu tuddee bunt bi loolu nag ñu bëri maanaam da gis suraax yi dañuy sonn parfois ci lu tax imaam al-Bukhari indi lii fii lu tax imaam al-Bukhari fii mais qaayida boobu la maanaam qaayida boobu soo ko jàppee léegi leneen feneen foo demee ci Sahih imaam al-Bukhari ay mel koy xam maanaam euh, da ngay gis suraax yi léeg-léeg buñ ciy wax dañ ciy waxee ne way mais lii amul rapport ak li mu tuddee buntu bi lan moo tax mu tuddee ko nii lu tax mu wax lii lu tax mu wax maanaam mbir mi daanaka dafa xaw a simple maanaam qaayida bi lii rek la lii ma leen wax la maanaam mooy su fekkee. imam al-Bukhari rahimahullah dafay tuddee benn mbir day bëgg kàddoom di nuroo ak kàddi alquran wala muy nuroo kàddi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye la mu nam dëgg dëgg ci bunt bi yaa ngi koy gisee ci xadis bi ni mu ko indee ak yaa ngi koy gisee tamit rawatina surtout ci euh, taaliqaat maanaam euh, muallaqaat yi nga xamante ne moom lay indi ak mawqufaat yi maanaam yooyu ci ngay gën a xamee ni lii na imam al-Bukhari rahimahullah taala nam ma wax ci lii bu fekkente ne mbir moom muy wax maanaam nekkul li mu li mu li mu jublu ci mbir mi dafay wax maanaam du wax turu ki ko wax daf ne rek wa qaala ba'duhum lay wax noonu la koy waxee comme niñ ko gisee woon maanaam bu boobaa mu ne moom da daan indil euh, euh, kaamil bi kon mu mu ko ak maanaam ni mu koy téye noonu nga gis ne kon bu boobaa laaj li mbir mi mooy ne euh, kii nga xamante ne moom mooy jigéen ji kon téye catu al cat maanaam kon téye kaamil bi ak téye catu kaamil bi du benn. manam téye buum ginti giñu takke kamil kaamil du ben lolu mom motax tax euh, jël sac kaamil nekk ci bir bokkul ak bu ma won woon sac bi ñaar yoy duñu ben man bu ma won kamil bi plutôt manam sac bi manam ma yor kamil alquran mu nek ni ma ko ni yamul ak tayin su dulu on kamil bi ma dugal ko ci ab sac ba pare tey sac bi ñaar yoy duñu ben tey kamil bi munu ma ko def mu am njàpp ci li ëpp ci waxu borom xam-xam yi rahmatullah teqantal googu daan ci ñëw ci xadis bi insha allah waaye waaye euh, bu ma ko ci xasee ba dugal ci benn saak téye ko loolu day daal di mën a ne niki noonu su ma yoree benn euh, su ma yoree kaamil téere borom xam-xam yi tam rahmatullah alayhim dañuy wax ni su fekkente ne damaa am kaamil alquran téere boo xam ne dafa am alquran am leneen lu dul alquran alquran la ak leneen lu dul alquran ci biir lu demee nekk téere tafsir yi wala téere xam-xamu diine yi li nga xamante ne mooy li gën maanaam dañuy sopp nga yor njàpp ngir loolu waaye nag du ci sart lu tax du ci sart euh, dañuy xool ndax dañuy wax ne qaayida bi moo tax al xukmu lil gaalibi wa naadir la wa laa xukma la li ñuy li àtte moom li ñuy jox àtte moom mooy li ëpp li nga xam ne mooy li gën a néew loolu amul àtte te bu boobaa comme tey rek bu ma bu ñu waxee ne masalan euh, euh, am na allocation bii nga xam ne dañ koy joxe dafa général France yëpp am nañ ci droit maanaam buñ ko waxee tekkiwul ne français yi kese kese kese ñoo koy am étranger yi tamit danañ ko am waaye comme que français yi ñu ëpp fuuf moo tax dañ naan français yi rek mu yem mu jeex maanaam mbir mi tamit noonu lay demee comme bu ñu ne Eh, saaga jullit baaxul ŋàññub jullit baaxul tooñ jullit baaxul <coughs> tekkiwul ne tooñ yéeféer baax na maanaam ngir ne bu ñu nekkee ci société boo xam ne nit ñi ay jullit lañ jullit bee yéeféer bi ñoom ñëpp tooñ leen baaxul ñëw fekk saaga leen baaxul nangam leen baaxul waaye nag dañ koy wax ngir bëri giñ gën a bëri maanaam ñoom bëri giñ gën a bëri mu loolu mooy alxukmu lil gaalib wan naadiru laa hukma la Ah, moy kon kaamilu alquran tire alquran bi bu fekkente ni tire bi dafa am alquran am leneen lu dul alquran bu dee alquran di ëpp bu boba du dagan nga téye ko fekk yoro japp warul yoro la waaye su fekkente ne téere bi dafa am ay maanaam yeneeni bind yu bokkut ak alquran ba pare loola ëpp bu boobaa loola la ñuy daal di jox atte yi loolu moom yor atte yi loolu moom moo tax muy dagan donte nag ngir xormaal alquran bi dañuy sopp nga yor kaabe bi comme niñ ko gis woon ci xadiisu Hiraql bi bi nga xamante ne ay ab aaya alquran nekkoon na ci biir wala ay aaya sax alquran ndax bis basmala mi ngi ci woon ak yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in ba aaya booba jeex mi ngi woon ci biir lettre bi ànd ak loolu Hiraql yéeféer la niki noonu amee na janaaba ngir ne mustasangu farata ak yu mel loolu yëpp ànd ak loolu yëpp euh, yenent bi saa sam yónnee na ko lettre bi nga xamante ne alquran jooju mi ngi ci biir maanaam kon nga gis ne dafa am ay euh, dafa am àtte bi maanaam li ko yor moom mooy li ëpp li néew yorul àtte bi comme téere tafsir yi comme téere xadiis ak yeneen ak yeneen waaye nag sopp nañ lool képp ku yor ab téere diine wala ngay jàng diine maanaam nga euh, yor euh, njàpp nga yor làpp lu mu néew néew kon mu ne wa qaala bil isnaadil muttasili fi awwalil kitaabi kitaabi ilayhi haddathana abu nuaym alfadl ibnu dukayn maanaam imam albuxaari rahimahullahu taala day faral di indi buy wax abu nuaym alfadl ibnu dukayn maanaam lii bëriwul lu mu ko indi li ëpp li muy indi dana qaala haddathana abu nuaym rarement lay wax qaala haddathana alfadl ibnu dukayn loolu moom moo gën a raar encore mooy alfadl ibnu dukayn ibnu hamad ibnu zuhair ibnu dirham alqurashi rahimahullahu taala moom mi ngi gane àdduna euh, cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi salaa sallam génn àdduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi salaa sallam imam albuxaari yi soloo na moom comme ni ñu ko gisee woon cent quatre-vingt-dix xadis yoo xamante ne yëpp daf koo jëlee ci moom ci sëriñam yi gën a mag la bokk mm-hmm. euh, nga xamante ne moom dafa soloo ci moom directement waaye Euh, ñeneen ñi dañoo soroo ci moom ci mu am intermédiaire euh, imam euh, ni ko noonu imam maanaam sëriñu imam al-Bukhari yi ku mel ne imam ahmad ibn hanbal ishaq ibn rahaway yahya ibn abu xaysama ak usman ibn abi shayba abubakar shayba muhammad ibn yahya az-zuhali ak ñeneen al jami' solo nañ moom rahmatullah alayhi moom مني سامي أنه نك نينا مم حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين أنه نك نينا نك مم سامي أديكنا زهيرا تمام زهير بن معاوية ابن حديد ابن الرحيل ابن زهير ابن خيثمة الجعفي رحمه الله تعالى مي نجنسي أبو خيثمة الكوفي رحمه الله تعالى مم ميجي جن ميجي جن أدنى 173 أنا جناو قدا ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sëriñ yu mag yi comme li imam alxaafiz alzahabi wax rahimahullahu taala ne moom alxaafiz cheikhul jazirat siqatun xojja maanaam mu xaafiz la mooy sëriñu jaziratu arab bi nekk siqa nekk ku ku nekk nekkoon xujja rahimahullahu taala dégg nga moom imam al maanaam jazirat kuufa plutôt maanaam jazirat kuufa maanaam mooy région boobu yëpp li xew kuufa côté boobu yëpp moom moo fa nekkoon kilifa moom moo tax imam ibnu ayena rahimahullahu taala da doon naan zuhair ibnu muawiya rahimahullah Euh, boo de maanaam maa ngi lay dénk booy jàng ci moom booy jàng nga dem nga jàngee ci moom ndax kuufa amul kenn kenn kenn kuufa mel ni moom euh, rahimahullahu taala moom dafa bokkoon tamit ci ñi nga xamante ne dañoo dëdd woon àdduna euh, ba nga xamante ne nekk noonu tamit nekkoon koo xamante ne ku dëgër ay mbir la ku wóor la nekk jaamukatu yàlla bu mag a mag nga xam ne waa dañ ko daan jiital ci kaw mboolem seen waa jamono mboolem seen waa mboolem maasam mi euh, waa Iraq waa Iraq dañ ko daan jiital ci ci seen kaw rahimahullahu taala comme ni ñu ko waxee léegi mi génn àdduna cent soixante-treize mu année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi nga xamante ne imam bu mag boobu la rahimahullah waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ay xadiisam mu ne an Mansuur ibnu Safiya euh, radiyallahu euh, radiyallahu taala anhuma mooy Mansuur papam ma ibnu Safiya dañ ko dàkkantalee Eh, yaayam bi nga xamante ne moom mooy safiyat bint shaybat radiallahu taala anha bi nga xamante ne eh, saxaaba la moom mu lañ ko dàqantele waaye moom papaam abdurahman la tudd eh, muy abdurahman ibnu talxata ibnu xaaris ibnu talxata ibnu abi talxata ibnu abdul uzza ibnu usman ibnu abdudar ibnu qusay maanaam foofu la bokkeek yenente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi génn àdduna 137e année ginnaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamata tamit ñingi ci kutubu sita muna anna ummuhu naka nenan ndayam manam moy safiyat bint shaybat alxaajib ibnu uthman ibnu abi talha ibnu abdullah ibnu abdul uzza nga xamne mom mon kon mam la ci manam mbokk bayam la manam manam bayam ak yaayam ay mbokk lañ fofu lañu la dégg nga mooy kon safiyatu bint shayba radiyallahu taala al qurashiyatu al abdariya radiyallahu taala anha bokkoon ci sahaaba yi radiyallahu anha nga xamante ne soloona xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte am na ñoo xamante ne wax nañ ne li nga xam ne moom mooy ay xadisam mursal la waaye ala kulli xaalin lu ëpp moom li mu soloo comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon jotoon nañ ko gis ci xadis yi ci kitaabul xusl jotone nagn ko gis mom limi solo ci sayyidat Aisha radhiyallahu taala anha lay faral di solo waye solo nañu ci mom juromi hadith yo xamantene hadith sayyidat Aisha radhiyallahu taala anha ñom ñoy hadith yi nga xamantene muttafaqun alayhi la comme ni ko gisee mu ne an hadathahu khabaran ko neena an na naka Aisha mooy sayyidat Aisha radhiyallahu taala anha hadathaha moo ko nettali an na nekkat nabiya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yattaki u doon su'oonu mooy doon wéeru euh, euh, fii xajir ci sama lupp wa ana fekk man xaa e doon gis mbërëg la summa topp yaqra u muy jàng alquran alquran maanaam nga gis ne kon ni mu tuddee bunt bi maanaam baabu qiraatu rajuli fii xajri imraatihi hmm? baabu qiraatu rajuli maanaam buntu njàngu maanaam mooy jàng alquran waa ji ah, fekk mi ngi suunu mi ngi wéeru ci luppu ah, jigéenam maanaam luppu soxnaam moo tax moo tax ah, sayyidat Aisha radiyallahu taala anha nettali wax ji nekk ki nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaan danaan suunu danaan wéeru ci sama kaw lupp bi maanaam da ci daan tëdd loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge mooy ne loolu tamit doxalin la boo xamante ne ci biir eh, néegu eh, sëy dafay di am maanaam loolu tamit xeetu mbi maanaam xeetu doxalin la boo xamante ne day indi ak déggoo aku euh, jaxasoo ak ak ak ak ak ak gën a neexoo maanaam mooy euh, euh, borom kër gi di teg bopp bi di tëdd ci lu pour soxna si mm-hmm. ndax yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daka daan def loolu tamit bokk na ci liñ ci jànge mooy sunna la mm-hmm. maanaam doxalin woowa sunna la te jaamu yàlla la ngir ne lépp lu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def di ko def loolu sunna la te jaamu yàlla la beneen bi ci des moom mooy ne euh, ki nga xamante ne moom mooy ki gis mbërëg loola def ak moom ak loola loolu wàññiwut dara kon dañ ci xamee ne euh, na ngeen beru jigéen ñi ci jamonoy mbërëg yi loolu tegtalewul ne da ngeen leen di teg nale doo leen nekk ak ñoom loolu beneen mbir la buñ ciy jàngee beneen bi ci des moom mooy ne njàng alquran euh, maanaam nekk ki gis mbërëg ba pare nga nekk ci wetam di jàng alquran wala boog nga jàng alquran fekk yaa ngi teg sa bopp ci kawam wala boog yaa ngi nekk maanaam euh, yaa ngi koy téye wala yeneen ak yeneen wala yaa ngi am en tout cas contact corporel ak moom loolu aayul itam loolu tamit beneen mbir la beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lañ ci xame moom mooy ne euh, njàngum alquran am njàpp du ci charte ngir ne léeg-léeg loolu am ci bànneex du ci euh, du ci jomb maanaam loolu am ci bànneex du ci jomb waaye boobaa mënef naa tontu ne ngir ànd yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom euh, mën na koo def fekk ne du ci am benn bànneex waaye nag loolu bu boobaa laaj gi nga waaye bu boobaa li ñu tontu mooy ala kulli xaalam jàng alquran maanaam am njàpp du ci sàrt te loolu ngir jëf yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne doon na jàng alquran fekk amewutoon njàpp loolu tamit bokk na ci liñ ci ja kon maanaam ci bu boobaa Eh, masala bi day daal rot manam masala bi dana rot te bu boba tontu bi ala kulli halin lol lay don moy ne ndior ndiap du charte ci jang alquran charte la nak ci tire alquran comme ni nga xamantene non la ko lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di waxe manam charte la ci tire alquran amma ni nga xamantene ñom ñoy ñooy zahiri yi rahmatullah alayhim ñom daganal nañu di jang tire alquran ak jang alquran fek da nga amé ndiap da nga amé manam amé fek amé wo ndiap nga téye alquran niki noonu jàng alquran niki noonu euh, euh, de di am amee janaaba di jàng alquran loolu ak niki noonu jigéen ji gis mbërëgam jàng alquran loolu yëpp dara nekku ci lu tax dara nekku ci ñu ne parce que amul benn dalil amul dalil buy wane loolu te cosaanu mbir mi mooy di jàng alquran kon euh, bul fi wax leneen dégg nga loolu kon loolu moom mooy li nga xamante ne ñoom loolu la ñuy wax te bu boobaa ndax xaqiqatan am na lu ñu wax te loolu am na mooy ne xadis bu formel wér ci gépp anam te kenn amul dara lu mu ciy dindi loolu xaqiqatan dëgg la amul ndax xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina abdullah ibnu omar ibnu alxataabi radiallahu taala bi nekk ci sunan imam at-tirmidi rahimahullah laa yaxra'ul junub wala xaaidu shay'un min alquran maanaam ki nga xam ne mooy ki amee janaaba du caageen ki nga xamante ne moom mooy ki amee mbërëg warta jàng dara ci alquran loolu xadis boobu wérul آه، اما حديث بيغا خامتاني لا يمس القران الا طاهر موي حديث ابو بكر بن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه بوبو تاميت نيوم داني واخ ني مرسل لا ا آه، دونت آه، حديث بوبو امان موي بيتي غنا وير موي بو مين في سنن الدار قطني رحمه الله ا تي حديث بوبو دا فا نيوم ا مانام دا هون ليتر يونتي بي صلى الله عليه وسلم موتي نيك beneen bi ci des nag mooy aaya alquran bi ngeen di wax laa yamassuhu illa al mutahharun boobu sax moo jiitu maanaam ne alquran kenn du ko laal lu dul ki nga xamante ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi laat ñi sell ñi ñoom boobaa dañ naan déedéet loolu tekkiwul lool ndax loolu xabaar la ñëwee si maanaam melo bi mu ñëwee mooy melo xabaar te melo xabaar lépp lu ci ñëw borom bi subhaanahu wa taala ci ne lépp lu mu wax dëgg la kon mënta ñëwee ci xabaar ne alquran kenn du ko laal fekk ne nekkooku laat fekk ne Euh, te li ñuy gis ci zahir mooy ne léeg-léeg nga gis ñu téye alxuraan te mbir mi noonu la demee li muy tekki kon mooy mutahharuna yi moom mooy malaaka yee tax ñuy wax te bu boobaa du alxuraan bii du alxuraan bii nii parce que daf ne innahu la qur'aanun karim fii kitaabin maknuun loolu la wax ne laa yamassuhu illa al maanaam lii ab alxuraan bu tedd la fii mi ngi ci téere boo xam ne bu ñu ñoŋal la maanaam ca kaw de boo xamante ne kenn du ko laal lu dul ña laab ña maanaam dañu laabal ña sellal leen kon loolu li muy tekki kon euh, mooy kon ñi nga xamante ne euh, euh, bu boobaa kon duñ ko mën a firi noonu donte borom xam-xam yi rahmatullah dañuy wax ne maanaam am la xadis maanaam wax jooju dafa gën a général maanaam mooy waruñu am droit laal ko bu boobaa day daal di yor maanaa yu bari maanaam mooy ne bokk na ci maanaa yi muy amee tamit moom mooy ne bu ko kenn laal parce que laa yamassuhu maanaam day tekki kenn du ko laal bi maanaa bu leen ko laal lu dul xanaa ngeen amee laal maanaam ngir ne loolu la ñu tuddee al al al bi maanaam insha maanaam xabaar la information la buy am maanaa digle ak wala tere dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom lañ fi maanaam moom lañ ko firee ala kulli xaalin li nga xamante ne moom la borom maanaam borom xam-xam li ci ëpp maanaam fuuf wax mooy loolu amma ñoom mooy zahiriya yi ñoom rabiat ar-ra'yi mooy mooy sëriñu imaamu Malik bi rahimahullah moom lañ la doon wax sànq ne la bu naan suñu borom xam-xam yi suñu dëkk bi wax nañ moom la ci jublu ak keneen mooy ibnu Hurmuz rahmatullah alay ñoom ak ñaari Saïd yi mooy Saïd ibnu Jubayr ak Saïd ibnu Musayyib ñoom ñaar tamit la même chose lañ wax ñoom dañ ne nit ki amee janaaba wala muy gis mbërëgam loolu terewul laal alxuraan terewul jàng alxuraan loolu yëpp dara aayu ci waaye xadis bi xaqiqatan day dëgëral ne euh, ne jàng alxuraan jigéen ji am mbërëg du ko def te bu boobaa atte boobu day daal di day gën a dëgër bokk ndax li mu koy tegtalee mooy kon li imam alxaafis ibnu daqiqul id di wax rahimahullah mooy ne bu fekkoonte ne euh, euh, bu fekkoonte ne njàng alxuraan kii gis mbërëg dana ko def kon information bi sayyidat Aïcha wax radiyallahu anha du am njariñ maanaam du fi nekk naan daan na tëdd sama lupp bi di jàng alxuraan fekk man damaa gisoon dama gisoon mbërëg maanaam parce que su doon su doon ne moom mënoon naa jàng alxuraan te te maanaam moom ci jëmmi boppam moom mii amul mbërëg mënoon naa jàng alxuraan su doon lool mën naa ne kon information boobu day nul voilà mu ngi mel ni rek mooy euh, ma leen di wax naan leen mën naa jël bis bi maanaam mën naa génn dem jëli ji bis bi xam nga information bu nul bu amul jariñ te fulla gi mu jox wax ji ba di ko nettali di ko nettaliwaat di ko nettaliwaat mooy wane ni euh, que ni moom mënta woon a jàng alxuraan fekk moom mi ngi gis la ay mbërëgam mhm. loolu benn benn loolu bokk na ci àtte euh, bi nga xamante ne moom lañ ci jànge te kon loolu day dëgëral ne ñi nga xamante ne amul laat ñoom duñ jàng alxuraan léegi nag foofu borom xam-xam yi mu alayhim dañ cee wuute maanaam fuqahaa ñi nga xam ne ñoom ñooy kon bu ñu xoolee yemee ci mazhab yi mazahib yi mboolem fuqahaa mazahib yi ñeent ñi nañ ci ne ki gisee mbërëg moom du jàng alxuraan du ci jàng dara waaye mu des euh, ma comme fuqahaa maaliki rahmatullah alayhim ñoom daganal nañ jigéen di gis mbërëg jàng lu néew ci alxuraan ngir bañ a maanaam di jàng alxuraan ngir bañ a fàtte. maanaam bu fekkente ne day jàng alxuraan waaye ngir bañ a fàtte bu boobaa loolu dañ ko koy daal daganal waaye xaqiqatan bu ñu xoolee ngir ne loolu euh, ñeneen borom xam-xam bi d'accorduñ ci du tout parce que lu tax parce que dañ naan mbërëg temps bi mu koy gis dafa tuuti au moment où temps bi koy gis dafa tuuti kon mënuñu toog naan maanaam temps bu fàtte xaju fi am moins que mu nekk koo xam ne vraiment dafa mën a fàtte lool waaye dëgg-dëgg temps bi mu koy gis nag fàtte xaju fi loolu moom mooy benn ñoom benn boobu la ñuy tontoo bi ñu des mooy ne jàng alquran googu comme dañ ko koo xaramal te sayyidat Aïcha radiyallahu anha ni mu waxee nii mooy wane ne kon moom mënu ko woon a jàng dafa xaraam waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi ne ci wetam moom mënoon na koo jàng mi wéewu ci moom mënoon na koo jàng mooy benn euh, kon Euh, bu doon nee moom mënoon na koo jàng ngir fàttaliku ngir fàtte bañ a ragal a fàtte moom kon doon na wax ne ah waaye nag man daan naa ko jàng te ngir dama doon ragal a fàtte masalan loolu mooy beneen bi bi ci des nag moom mooy mbir la moo xamante ne tey bu ñuy xool lii bokk na ci nga xamante ne day dugg ci ci qaayda euh, taxayurul ahkaam bi taxayuri zamaani wal makaan maanaam atte bi soppeeku ci atte yi jam ngir jamono wala bërëb maanaam nu duggee mooy tey Euh, ñoom fuqaha u maliki yu njëkk yi rahmatullahi dañ koo daganaloon te cause bi nga xamante ne moom moo taxoon mooy comme alxukmu yaduuru maa illatihi wujudan xaysu ah, daara wujudan wa adaman mooy ab atte day wër-wërloo di ànd ak cause u atte bi su fi cause u atte bi nekkee atte bi nekk su fi cause bi toxoo atte bi toxu parce que ñeneen ñi ci des maanaam mooy xanafiye saafiyee ak xanaabila rahmatullah bokk na ci li leen di tontoo mooy mën na koo jàng ak xolam té dagalal nañ lako mu diko lire liir mu diko xol ak ay beutep ba pare diko jang ci xolam kon du du soxla diko jang ak laminam kon euh, bu boba acte bobu ñom fuqaha o maliki rahmatullahi alayhi tay jamono ji lii li nga xamantene moy li lii am manam ñom moy dañuy manam li nga xamne ne mo suitu sen sen raisonnement moy na léegi mom acte bobu day dal di taxu ngir lan ngir ne mën na koo déglu mën naa teg kaset bi déglu ko bu bañee mm-hmm. fàtte mm-hmm. euh, niki noonu mën na koo liir ci tablette am ak yu mel noonu mm-hmm. léegi yooyu yëpp mën naa ne bu ko fàtte beneen mbir bi nga xamante ne tamit kon moom mooy euh, beneen atte bi ci am moom mooy ne ki amee janaaba niki noonu mooy kii gis mbërëgam mën naa jàng xam nga dañ leen di tere ñu jàng alxuraan fu xaaw Maalik rahmatullah ñu préciser dañuy tere tam ci am janaaba jàng alxuraan lu tax parce que ñoom dañ ni moom man naa sangu ci moom mën naa dem sangu ci alors que ki amee mbërëg moom mënta sangu ci loolu moom moo tax ñu teqale leen waaye li nga xamante ne moom ñoom ñaar am na lu ñu bokk moom mooy tey masalan bu ñu waree jàng loo xamante ne maam loolu beneen masala la buy dugg ci biir masala bi mooy tey bu fekkente ne dañoo war a wax loo xamante ne euh, al kii la alquran waaye jubluwuñ ci alquran مثلا دار خاو ني ان لله وانا اليه راجعون مثلا ا آه، خما لول القران ولا بوم ني ييب تي بن بروب دا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون لول تامت القران لا واي دا نيان نا نعم تامت بو ني جان بو فيك دا دا ييب تي كاو ا آه، وار واي ولا بوك لو دمي نكه Eh, ñuy ñaan daal bokk ci ñaan yi ne rabbana aadina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina an nar te ñu jublu ci ñaan jublu wuñ ci jàng alquran li ëpp ci borom xam-xam rahmatullahi alayhi daanaka sibu ijma la mooy dagat la loolu mën naa ne maanaam loolu duñ ko tere mais li ñuy tere mooy ñu jublu ci jàng alquran léegi euh, beneen euh, masala bi moom mooy liñ ci xame mooy ne nit ki mën naa jàng alquran ci weetu ki nga maanaam wetu sobe ngir ne moom bu jëlee bopp bi teg ko ci lupp ndaw si euh, mooy jege na fi sobe bi di génnee ànd ak loolu yëpp moom ak gémminam la doon jàngee alxuraan beneen bi ci des mooy bokk na ci liñ ciy xamee mooy ne mën naa jàng alxuraan fekk dafa tëdd maanaam toog tëdd maanaam toog jublu xibla ak yooyu du sart ci jàng alxuraan ngir ne kon yenn saa du tëdd di ko def te loolu beneen mbir la boo xamante ne tamit day tegtale lu lu lu lu lu am solo mooy ne jàng alquran ci ki ko mokkal maanaam muy jàng alquran mën nay dox di ko def mën nay taxaw di ko def mën na tëdd di ko def et cetera maanaam duñ ko sartal mu toog rek toog ñu bëree bëri dañuy wut ngantu jàng alquran ngir ne amuñu temps bu ñu toog di jàng ko déedéet obligé wut mën ngay dox di jàng alquran nekk ci sa liggéey di cetera mën ngaa nekk ci lu di ko tare yooyu yëpp tamit ay euh, masala la beneen bi ci des moom mooy ki nga xamante ne gémminum dafa amee sobe maanaam gémmin gi sobe da moom itam am njàng alxuraanam dañ koo sib am na sax boroom xam-xam yu bari ci Shaafi'i rahmatullah ñu ne dafa xaram voilà nga xadis euh, boobu imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro deux cent quatre 96 euh, euh, maanaam ci ngir ne même jëmmi maanaa bi la 7549 euh, incha allah imam Abu Dawud na ko xadis numéro 260 imam Muslim na ko xadis numéro 301 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 274 ak 381 imam Ibn Maaja na ko xadis numéro 634. imam ahmad ibn hanbal indi na ko xadis yu bëri kon imam euh, tirmisi moo ko indiwul ci waa asxaabu kutubu sitta rahmatullahi ala aljami mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne sama dafa tuddee an nifaasa euh, baatu nifaas bi tudd gësin ci cosaan mu tuddee ko xaydan mbërëg maanaam mu tuddee ko mbërëg maanaam muy wax jigéen ji dafa gis mbërëgam walla au lieu mu wax loolu mu daal di wax jigéen ji dafa gis gësinam fekk lim ci jublu woon moom mooy ni dafa gis mbërëgam maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ciy leeral ne maanaam ni mbërëg mënef na ko tuddee tur yu bari comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna ah bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ci imam al-Bukhari di leeral mooy ne atte yi nga xamante ne ñoom ñooy atte mb ñoom ñooy jëmmi atte yi gësin mbërëg nag Euh, maanaam gësi gësin nag euh, loolu mooy do maanaam mooy deret bi nga xamante ne mooy génnee ci jigéen ji buy am doom de manière générale loolu la boroom xam-xam nag dañ ciy wuute rahmatullah alayhim ci lan la ñuy boole ci gësin ak lan lañ ci dul boole boo xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi euh, ak shaafi'i rahmatullah alayhim ñoom li ñu boole ci gësin mooy li nga xamante ni mooy li génnee ci moom maanaam mooy juste li génnee ci moom ginnaaw bi mu juddee maanaam ginnaaw bi xale bi juddoo ñoom faaw xale bi juddu ba noppi ñuy doogu tuddee liy génnee ci moom gësin ba noppi beneen bi ci des moom mooy deret jooju di maanaam deret ji génn avant gësin loolu deretu ñoom deretu bu yàqu lañ ko tuddee wala deretu soit dañ koy tuddee bu dee saafee dañ koy boole soit ci mbërëg gi wala bokk ñu boole ko ci deret gu yàqu bi damu fasaad walla wala boog bu dee ñi ci des ñoom dañ koy boole rek ci deret goo xamante ne maanaam deret deret deret bu tuuru la am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo boole euh, maam dañoo cee chartal ne deret jooju nga xamante ne moom mooy ci génn maanaam à partir de moment boobu ba 60 jours waaye li ëpp li muy am mooy 40 jours maanaam ngir ne euh, ak sarul ndax xam nga. waxoon nañ ne la aqalul xayda li gën a néew ci mbërëg li gën a néew ci mbërëg loolu jotoon nañ ko wax ci jotaay bi wees li gën a bëri ci mbërëg tamit waxoon nañ am amaa li gën a néew euh, ci gësin mooy amul maanaam mooy jigéen ji mën naa jub jur doom rek mu jeex bu boobaa day dem sangu ji farata rek ñëw continuer ay julleem ngir lan ngir ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi maanaam loolu mooy globalité wu borom xam-xam yi li ci ëpp dañuy jàpp ne maanaam ci mboolem masab yi d'ailleurs dañuy jàpp ne doom ji juddu euh, moom ci boppam du du buy génn du génn moom kese maanaam day génnaale ak euh, tooy tooy maanaam faaw mu tooy lu mu bon bon maanaam du génn wow kongu euh, kon kom du génn wow kongu bu juddoo kon faaw loolu muy génnaale moo tax ngay dem sangu ji farata wala boobu parce que bu boobaa soit day am àttey euh, mbërëg mooy gësit walla mu am àttey man yu bu génn ci nit ki maanaam man yu bi duggoon mooy nag te bu boobaa loolu day waral mu dem sangu ji farat maanaam kon ñaar yooyu la ñuy boole ñoom moom la ñuy wax ne moo tax nit faaw jigéen jooju day sangu farata doo continuer julli loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom moo jaar ci wilaadatul xaysariya mooy césarienne mhm. kooku tamit day dem sangu ji farata mais comme moom du gis gësin gi mhm. après day dem julli day dem commencé jàpp di julli directement kooku du arrêté ah day julli directement du xaar dara amaa ki nga xamante ne euh, moom mooy kii di euh, Shaafi'i yi kon rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam Hanafi yi rahmatullah ñoom dëppoo nañ ak ñoom ci ne kon mbërëg maanaam gësin mooy deret ji génn directement après mbërëg après dinañ ñëw ci ci ci durée bi incha allah euh, mais maalikiyee ak xanaabila rahmatullah ñoom d'accord wuñ noonu maalikiyee rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne deret ji di génn moment bi ñuy bi nit kiy matu moment bi mu nekk di matu ci bis bi lii génnee ci moom di ànd ak maanaam ñoom sabab la ñuy utiliser duñ bind maanaam euh, ak damul xaariju baadal wilaada ñoom duñ wax lool dañ naan ad damul xaariju bi sababil wilaada moo tax ñoom noonu maam ci sababu jur gi deret ji génn te la sababal de génnu deret mooy jur gi ce qui fait que bi muy di génn deret jooju di tàmbali génn laataa muy génn muy muy mat muy muy juddu ñoom loolu dañ ko boole ci gësin gi maanaam ci nifaas lañ ko dugal mm-hmm. voilà ñoom ci gësin lañ ko dugal Euh, nit ki noonu ji xale kii bi nga xam ne mag mag mi mag mi nga xamante ne dafay am euh, euh, subhaanallah xanaa bi lay plutôt rahmatullah alayhi ñoom xanaa bi lay dañoo jàpp ne ñaari fan ba jàpp ñetti fan laata nit ki di juddu laataa xale bi di juddu deret ji ñuy gis loolu ba tey nu mu tudd gësin la tudd maanaam ñaar ba ñetti fan laataa xale bi di juddu lu tax ndax ñoom dañoo wax ne maa qaaraba shay'a yaxudu a maanaam loolu atte fiq lépp lu jege mbir day jot jël atte maanaam masala euh, bokk na ci atte ci ci atte boobu masa masala boobu maanaam usul la usul fiq la maanaam masala maa qaaraba shay'a yaxudu hukma wala qaayida fiqiyya la tamit lu jege mbir day jël atte maanaam tey bu fekkente ne dañ ne euh, damaa am maanaam sama kër par exemple wala boog jàkka jàkka ji xorma bi jàkka ji am xam nga tey buñ jàppee ni jàkka ji moom mooy eh, néeg bi nga xam ne moom lañuy tabax ci biir alentouru jàkka ji day yor àttee jàkka ji loolu moom moo tax tey masalan bu ñuy julli bu jàkka ji feesee mën nañuy jokkaloo ba ci biti jàkka ji ba tey day yor àttee ku nekk ci biir jàkka ji ngir ne boo jegee mbir da ngay jël àttee voilà lii tamit noonu la demee maanaam deret ji nga xamante ne dafa jege lool mbër gësin gi dafay jël àtte yi gësin gi léegi mu des lan mooy durée gësin durée gësin wax nañ la ko ne la Shafi'i maanaam ngir ah, xanaa ngir ñu commencé ci Hanafi rahmatullah ñoom quarante jours lañ ko jàpp ñoom ak xanaa bi lañ rahmatullah lañ ngir ne Sayyidat Ummu Atiyya radiyallahu anha dafa ne ñun jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam 40 jours lañ daan jàpp mbër lañ daan jàpp gësin. naka noonu sayyidat ummu salama radiyallahu anha wax na ko mm-hmm. waaye euh, euh, maaliki yi ak xana ak Shaafi'i rahmatullah ñoom déggiwuñ ko noonu mm-hmm. maanaam ñoom dañ ne loolu mooy yéen maanaam mooy jamono yenn saa sam jigéen ñi existé woon maanaam ña fa nekkoon loolu lañ daan gis tegtalewul ni mbir mi noonu nay demee tout le temps mm-hmm. parce que gis nañu ku ñu gis ba 60 jours moo tax mbir mi dañ koy yóbbu ba 60 jours comme que amul benn dalil maanaam yeneen bi saa salaam waxul ne gars yi dee leen jàpp 60 dee jàpp 40 jours maanaam 40 jours yooyu nag tegtalewul da ngay toog bi xaar ba 40 jours ah déedéet li muy tegtale mooy euh, bu dangay ngay bu juddoo wax nañ ko léegi bu fekkee amul benn deret bu xale bi àndal yow léegi nga koy sangu ji dem tàmbalee julli euh, bu fekkente ne dafa arrêté moment bi mu arrêté euh, dañ koy boole maanaam moment bi ñu arrêté ngay dem sangu ji ñëw. moment bu arrêté rek da ngay dem sangu ji ñëw julli continuer sa julli bu demee ba jëlaat reprendre nga dem reprendre waaye su fekkee ne diggante bi matul 15 jours ndax waxoon nañ ne la aqal la tuxri mhm. maanaam li gën a néew ci laab mooy 15 jours mhm. euh, xanaa bi lay ñu wax 13 mhm. rahmatullah mais euh, jumhur 15 jours lañ ko jàppe su fekkente ne diggante bi ngay gis deretu mbërëg bi gësin gi ak beneen moment bi ngay gis ak deret maanaam dafa arrêté nga commencé jàpp di julli bu dee weeru koor la te nga man am doole geeg yépp nga commencé woor du dëgg léegi mu dem dem dem dem dem dem dem dem dem ba plus ba 15 jours 15 jours 16e jour bi nga gis beneen ngi gis beneen deret bu boobaa dañ naan léegi deret ji bokkutul ci gisin gi ci mbërëg gi la bokk beneen mbërëg bu bees la à partir de moment boobu da ngay daal di xam ne nag léegi yaa ngi commencé du gisat mbërëg su dee matul 15 jour da nga leen di boole dégg nga ñu daal di nekk ci gësin gi lay bokk bu dee ci xanaf yi rahmatullah alayhim ñom lepp ngay bolé lepp ngay considérer né ci bis yi la maanaam jour yépp dañ koy considérer ñom comme étant bisu bisu bisu bésin yi maanaam ñoom bu 40 jours moment bi mu arrêté noonu ci 40 yi la bok mais loolu ñom la ñeneen ñi ñom duñ ko boo du ñëpp ñoo koy boole noonu saa fi lu ci ëpp dañ koy bolé nonu tamit. donte amna ñeneen ñu tuddi ñuy wax benen loolu dinañ ko gis inshallah parce que loolu lañu ñu moy wute moy moy mazhabu talfiq wala boog mazhabu sahb manam ñaari xeetu mazhab yoyu gis-gis yoyu ño am ci gëssim ak mbeur manam ak talfiq moy boole biñu boole bisi dajale len sahb mom moy jàpp gi ñuy jàpp ne lépp ci la bok voilà mazhabu talfiq dañ ko wax tamit mazhabu laqtu voilà mais daañ ci ñëw euh, insha allahu taala ci ay teqantal ci ak leeral euh, kon euh, ñoom lii moom imam al buxaari rahimahullah taala kon maanaam ñu ñu ñëwaat ci ci mazhab ci ci ci ci mazahib bi maaliki yi rahmatullah ñoom 60 jours lañ ko jàppee ne gësin loolu lay durer au maximum ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaa Shaafi'i rahmatullah ñoom dañ ne 60 jours la comme ni maaliki yi wax mm-hmm. rahmatullah sauf que lu ci ëpp nag 40 jours lay am maanaam mooy bu xasee ba mat 40 jour nag yow nag léegi nekkal ci say garde tout le temps te xam ne lu ci ëpp daanu ko weesu te li ëpp ci jigéen ñi ne ñu gis duñ matal 40 jours wala duñ ko ëppal bu boobaa léegi beneen masala bi moom mooy waaw ndax borom kër gi day dada am droit di jotee ak soxnaam ak maanaam même bu dee dafa set te 40 jour yi matagul. boobaa borom xam-xam rahmatullah li ñu wax moom mooy lool dana dagan de waaye sopp nañu mu xaar nigindiku comme li imam ahmad dom rahmatullah sopp nañ mu xaar ba quand même 40 jours yi mat muy doog a tàmbalee joteeg moom euh, beneen mbir bi nga xamante ne kon euh, moom mooy euh, fii moom mooy bu dee ay cheikh la bu boobaa dañuy nattee mbir mi ci ki njëkk judd pas ci ki mujjee judd ci ki njëkk a juddu ci la ñuy nattee euh, ci la ñuy nattee gësin gi mm-hmm. waaye bu fekkente ne seen diggante mat na 60 jours Shaafi'i rahmatullah maanaam kii dafa juddu 60 jours après ki ci doo ko juddu mm-hmm. euh, bu boobaa dañuy daal di <laughs> jàpp atte <laughs> ku nekk da ngaa am sa gësinu bopp mm-hmm. voilà. Ah, dégg nga kon mu ne qaala bil isnaadil muttasili fi awalil kitaab ilay haddathana al makkiyu ibnu ibrahim mooy makki ibnu ibrahim ibnu bashir ibnu farqad rahimahullahu taala dàqantam ne kon abu sakan ah, moom ah, abu sakan at-tamimi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 280 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al buxaari solo na ci moom ay xadis directement moom moo solo ci moom directement mboolem waa ashaabu kutubu sitta al makki ibnu ibrahim te gis nga deux cent quatorzième année la génn àdduna mhm. maanaam mooy imam al buxaari yi moom bi muy génn àdduna imam al buxaari la am mhm. boobu mi ngi dugg ci vingt ans moo tax euh, moo tax imam yi rek moo jàngee ci moom mhm. euh, moom euh, mi ngi génn moo ci yéeme mooy waa waa la makki ibrahim rahimahullah imam al Buxaari yi moom fële la dëkk euh, Buxaara la dëkk euh, Uzbekis euh, Uzbekistan maanaam imam al Buxaari dèjà ak boobu commencé woon na wër jàng na te bu ñuy xool sëriñam yu mag yi dañuy seetlu ne am na ci ñoom ñoo xam ne dëgg la Buxaara la dëkk ci wetu seen wetu gàlla la dëkk mais dañuy gis ñoo xamante ne dañuy dëkk feneen fu gën a sori ah voilà imam al Buxaari yi soloo na ci moom 30 xadis ci saxeexam bi 30 xadis la ci solo imaam muslim rahimahullahu taala ak imaam Abu Dawud ak Tirmidhi ak imaam ak Ibnu Maaja ñoom solo nañ ci moom par intermédiaire waaye kenn ku ci nekk ñoom lu tuuti nga solo ci moom imaam muslim benn xadis la solo ci moom par intermédiaire benn. imaam Abu Dawud solo na ci moom ñeenti xadis imaam ak Tirmidhi solo ci moom ñaari xadis imaam Ibnu Maaja benn xadis la solo ci moom tam ci intermédiaire amma imaam an-Nasaa'i solowul ci moom benn. حديث رحمه الله تعالى من قال حدثنا هشام تمام ابن سنبور الدستوائي رحمه الله تعالى ذاك تنكون أبو بكر مو waa Basara رحمه الله تعالى di xaafis bu mag gane aduna 76 76e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn aduna àdduna 154e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Yahya ibnu Abi Kasir sëriñ bu mag bobu rahimahu allah taala mo mo moo istafa ha li raaxatil jismi moom moo ko waxoon wax ju siiw jooju xam-xam kenn du ko am ak yaramu sedd moom loolu la wax dégg muy yaxya ibnu abi kasir euh, ibnul mutawakkil rahimahullahu taala dàqantal ne kon abu nasr ak abu kasir ñaari dàqantal yooyu la amoon mi ngi génn àdduna cent vingt neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne cent trente deuxième année ci la génn àdduna mu ne an abi salama mi ngi jëlee ci abu salamata moom mooy abu salamata ibn abdurahman ibn awf radiallahu taala anhuma ah, ibn awf ibn abd awf ibn alxaaris ibn zuhra foofu la bokkeek yonent bi saa saam ci wàllu yaayam mooy zuhrata boobu nga xam ne moom mooy ah, maanaam aminatu di ibn bint wahb di doomu wahb di doomi abdu manaafin zuhra maanaam kon foofu la bokke yonent bi saa ci wàllu yaayam ibn kilaab ibn murrata foofu la bokke yonent bi saa ci wàllu baay mooy kilaab ibnu murata murata eh, foofu la bokkee seydina abubakar radiyallahu anhu ah hmm. ak ñoom sayyidat aïcha ñoom ñëpp ñoom foofu lañ bokkee nekkee ay mbokka ah, ibnu kaab ibnu luway ibnu ghalib radiyallahu taala moom euh, ci benn ci wax yi bokk na ci fuqaha sab'a yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee juróom-ñaari borom xam-xam fi koy rahmatullahi alayhi mm-hmm. mi ngi gane àdduna vingt-septième année ginnaaw gàddaay Musaa sallam mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorzième année mm-hmm. génn at gane àdduna mooy borom xam yi yu bari dañ ciy génn àdduna waaye borom xam-xamu Madina yu bari dañ ciy gane àdduna at boobu ah maanaam nga gis borom subhaanahu wa taala remplacer ñi ñi fi jóge mu remplacer leen par beneen génération bu bees ñoo xamante ne gënuñu gënuñu maanaam dëgg-dëgg euh, ñooñu bu ñu bi ñu bu ñu bi ñu màggee sañoon nañ taxaw wax ne vraiment ñoom nañ xam ne nag bàyyi maanaam jóge wuñ fi rek affaire yi dem seen yoon maanaam bu ñu fi jógee dëgg-dëgg borom subhaanahu wa taala indi na fi ñoo xamante ne ni ñoom lañ meloon maanaam euh, kon moom euh, Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu moom tam waa asxaabu kutub sitta solo nañ xadis moom comme Hisham ko moom ah, euh, Sumbul ad-Dastawaa'i comme ibn Abu Salama ibn Abdurrahman anna Zaynab bint Ummu Salama maanaam mooy Zaynab bint Ummu Salama mooy gisoon nañ ko ci xadis yi weesu ci bi ñuy jeexal kitaabul ghusl mooy Zaynab bint Abi Salama la mm-hmm. dégg nga Euh, mooy kon buntu abu abu salama mooy abdullah ibn abdul asad moom ci waa euh, euh, moom ci waa banu maxzum la bokk ah, maanaam moom al maxzumiya radiallahu nga xam ne la ci yonent bi saasam maanaam doomu jiit la yonent la saasam ngir ne yaayam ummu salama radiallahu anha moom la yonent bi saa salama dencoon te ba koy denc moom moom fekk na ko mu gën a àdduna moo tax moo tax doomu jiit la ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallam lu bëri nag ay lu mu solo ci sayyidat ummu salama radiyallahu taala anha la ko solo moom mooy yaayam bi nga xamante ne moom mooy kii gën a lu mu solo xadis ci soxna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw sayyidat taala anha comme ni nga xamantene non lañu ko xam imam az-Zahabi rahmalahu kontel nako 380 hadith moy quatre-vingts Salama radiyallahu taala anha way li liñu mais lool moy liñu baamu way buñu xolé limu solo ci hadith yi buñu ñu leen jëlee par ben ben 158 euh hadith xadis la yoo xamante ne imam al-Bukhari imam muslim rahmatullah bok nañ solo 13 hadith ci yoy imam bukhari weto na 3 hadith imam muslim weto na 13 hadith mom sayyidat um Salama motax mom mi nga xamantene mom la sayyidat zainab bi radhiyallahu taala anha mom so jele hadith bi moy Zaynab bi Salama ta moy Hind ibn Abi Umayya radhiyallahu taala anha al makhzumi radhiyallahu anha di ummul mu'minina soxna Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngi génn àdduna sant yi ñoom année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom mu ne mu ne anna ummu salama mooy yaayam sayyidat ummu salama radiyallahu taala xaddasat haa koo nettali annaha qaalat qaalat daf anna ah, haa daf koo nettali qaalat mu wax ne bay naa ci diggante bi xam ne ana annabi maa ngi ànd ak yenent bi maa ngi nekk ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam muttajiatun di aji nelaw fii xamisatin ci mbàjj manam ñu ngi tok nek ci benn mbaddi ñu bok bok benn mbaddi bu ñu nelaw manam xam sa xéetu mbàjj la bo xamantene day nek genre lu lu lu carré lay nek mu ne is ba nga xamantene rek man jeki moom manam rek jekki-jekki xettu maradi gis mbërëg manam moy ma jekki-jekki gis tambalé gis fan sa laltuma rocceeku fa akhadtu mudadi jil di hidati siyaaba xiidat sama maanaam yére bi nga xamante ne saa yu ma am daan am mbërëg moom laa daan sol loolu kon dañ ciy xamee ne euh, yoon la maanaam na la ci jigéen ji gis mbërëg mu am yére boo xamante ne daf koy beral mbërëg maanaam ngir bañ yére yi ci des di takk ak di am risque yu ñuy jël ngir loola ah léegi nag dinañ gis ne euh, euh, comme jigéen ñi am nañ yeneen mbir yu ñuy yor yoo xamante ne amaan na maanaam day tax ba daanaka mbërëg bi moom vraiment voilà amatul risque mu teg tegu ci seen kaw cause bi taxoon xëy na dañuy wax ne dana teggeeku ci loolu waaye ba tey ngir dawal sunna rek ak di ko continuer maanaam loolu amaan na dafay nekk li nga xamante ne moom day euh, mooy gën ala kulli xaalin di def di def loolu moom amaan na moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, li gën waaye daal dañ ci xamee ne daal ne beral euh, mbërëg yére loolu sunna la Euh, mu ne kaala moo tax ba mu ko defee rek kaala yonent bi saa sam ne ko anum ah, fiis fii ndax da ngaa gis mbërëg bokk na ci liñ ci xamee bu ñu ko booleeg si xadis sayyidat Aisha radiyallahu anha mooy ne yonent bi saa sam bëri faral di tuddee nifaas maanaam mbërëg hmm? moo mu ne ko anum fiis fii xamee ne tekkiwul gësin mooy ne amul kenn ci ñoom benn ñoom ñoo ko wax daanaka xej xej xej xejtu la damaa gis samay mbërëg ñaareel bi ci des mooy amul kenn ci ñoom ku gis gisin ci ñoom soxna yi ci jamono bas maanaam ñooñu mu nekk ndoola ngir ne moom doomam yépp sayyidat Xadija moo leen mooy seen yaay radiyallahu anha naka noonu eh, ak des kenn muy sayyidna Ibrahima alayhi salaam te ki ko jur eh, moom amuloon ay dégg eh, mu ne Euh, beneen beneen bi ci des moom mooy ne dañuy xamee maanaam li ñu tudd ak axdu bil qara'in maanaam mooy di jëlee par ay indice maanaam parce que daf koo gis mu sol yére boobu waxu ko ne damaa gis mbërëg waaye ci loolu ci la jàngee ni kon ci dafa war a gis mbërëg maanaam mooy ne ay indice dañuy ja dañuy day tax nga war a mën a tëral àtte ci dara voilà loolu tamit euh, bokk na ci maanaam comme masalan tey nit ki euh, di di di nga jékki-jékki gis ko mu tëb. parenteer bi di daw ak yu mel noonu boo ko gisee da ngay xam ne kii am na lu mu def lu jaaduwul mhm. wala yu mel noonu maanaam <laughs> ah, ak yeneen ak yeneen maanaam mbir la yoo xam ne dañ koy mën dañ ciy mën a euh, tëral ay ay àtte euh, masalan ki nga xamante ne maanaam euh, ki nga xamante ne tey masalan dafay xeeñ xetu sàngara ci la dañu mën a xam ne ah day naan sàngara wala yu mel noonu mhm. nañ ko wala muy xeeñ cigarette nga xam ne kon kii day tux ce qui lépp loo xamante ne yow boo koy def kuy tux waru ci bokk wala kuy naan sàngara waru ci bokk da ngay daal di mën a tëral boobu ci kaw yow gisoo ko muy tux na ma ni ko na am waaw mu daal di may woo daal di may woo fatta jaatu ma daal di tëdd ma awu ànd ak moom ah, fil xamilati ci E, mbàjj mi ba tey maanaam boobu maanaam ne ñoom ñaar ñu bokk ci benn bërëb bu ñu tëdd ci biir mbàjj mi loolu tamit dañ ci xamee ne këni e, mooy mooy ne loolu maanaam mooy rafet jikko bi ci bi sallallahu alayhi wasallam rafet jikko loolu benn ñaareel bi ci des moom mooy ne maanaam même jamonoy mbërëg yi loolu warul tàkkale way dencante yi maanaam jamonoy mbërëg yi waru leen tàqale bu boobaa dañ ci xam ne loolu fatazilu nisaa fil mahid déeru leen jigéen ñi ci mbërëg gi li muy tekki mooy beru leen leen bu leen jotee ak ñoom waaye tegtalewul ne euh, beru leen leen bu leen nekk ak ñoom hmm? loolu kon euh, bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci euh, xamee xadis bi imaam al-Buxaari indiwaat na ko xadis numéro 322 xadis numéro 323 ak xadis numéro 1929 imaam Muslim xadis numéro 296 imam an-Nasa'i xadis numéro 283 ak 260 ak 371 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 637 imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro 26525 26566 26703 ak 26743 kon waa saxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp ñoom euh, ñeenti ñu ñoo ko solo ba mu kon ba mu des ak Tirmizi yi ak آه، امام ابو داوود اك الترمذي رحمه الله عليه نيوم نيان نوكو سولو رحمه الله على الجميع من باب بنت مباشره الحائض مباشره جونجو الحائض كي خامتن موم موي كي غيس مبرك ا مانام مباشره الحائض لمي تيكي موم موي جونجو اك نيوم لمي تيكي موي كوم يي غيس سي سوني حديث يي ويسو موي ام اك نيوم اي Euh, maanaam contact bu direct loolu lañ ci tublu waaye daan ci gis insha allahu taala ne dafa am lu muy tekki dafa am ay mbir yu bëri yu muy tekki te dafa am li nga xamante ne boroom xam yi dañ ñoom ñëpp d'accord nañ ci am loo xamante ne boroom xam ñoom ñëpp wuute nañ ci war wa astaghfirullah maanaam d'accord ci ngir ne ñetti xaal ñu am ñetti xaal xaal bu njëkk bi ci ci ci wàllu jonjoo première xaal bi mooy nga jonjoo ak ñoom ci li féete kaw jumbax bi ak om bi maanaam diggante jumbax bi ak om bi doo ko laal doo ko jege waaye li ci des yëpp jonjoo ak ñoom ci loolu loolu dagan na ñépp ci d'accord amul benn borom xam bu ko xaraamal amul amul jonjoo mooy contact direct mubashar amul ku ko xaraamal ñaareel bi ci des mooy Euh, jotee ak ñoom maanaam sëy loolu ñëpp ko xaraamal kenn daganalu ko ci ñoom loolu mooy ñaareelu xaal bi ñetteelu xaal bi mooy diggante jumbax bi ak bëti óom yi foofu la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim indee ay wuute daan ci ñëw léegi insha allahu taala في حديث بمن قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا قبيصة بن قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة الكوفي رحمه الله تعالى ودخلت من يكون أبو عامر الكوفي رحمه الله من جن أدنى 215 أنا جناو قد ينتي بي صلى الله عليه وآله وسلم نكون إمام بو مغ مغ مغ رحمه الله Euh, nekkoon imaamu wa Kuufa maanaam bokkoon tamit ci jaamukatu yàlla yu mag yi nekkoon ki nga xamante ne moom mooy ku dëddu àdduna bëri woon tamit xadis yoo xamante ne solo na ko ci Sufyaan ibnu Saïd as-Sawri rahimahullahu taala euh, euh, dégg nga nga xamante ne moom Yaqub an-Nasibi rahimahullah dafay wax ne maa raaytu min ashuyuxi ahfazu min qabisata ibn uqba maanaam ci sëriñ sépp gisuma ci ku ci dàqa mokkal qabisa ibn euh, uqba bi rahimahullahu euh, taala euh, nekkoon tamit lu ku bëri lu mu daan jooy ngir ragal yàlla ak maanaam bëri lu mu daan julli bëri daan sujjóot ak roko maanaam bëri lu mu daan julli nekkoon tamit boobu lu mu daan jooy ngir ragal yàlla dafa bari de telle sorte que dañ ko koo xamee fu ñuy waxee ci lu aju ci wàllu yàlla ri waaraatee rek day gis day jooy euh, rahimahullahu taala maanaam ci sëriñu mag yi la sëriñu imaam al Buxaari la moo tax imaam al Buxaari rek moo soloo ci moom ci mboolem euh, euh, ñi ci ñi ci maanaam ci mbooleem Euh, sëriñ si maanaam waa kutubu sitta am na ñi nga xamante ne moom ñooy ñeneen ñi ci def ñoom dañoo soroom ci moom ci intermédiaire boo gisee at yi mu génn àdduna moo ko expliqué deux cent quinzième année la génn àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na qaala nee na xaddasana Sufyaan te moom mooy as-Sawri maanaam xabisa ci Sufyaan as-Sawri la solo rahimahullah solowul ci ibnu Saïd Sufyaan ibnu Saïd ibnu Masruuq ibnu Sawr sawri rahimahullahu taala daakantam ne ko abou abdallah al kuufi mu waa kuufa la rahimahullahu taala mi ngi gane àdduna 97e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna 161e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa asxaabu kutubu sitta nañu ay xadiisam mu nekk imam bu mag a mag siiw ci xam-xamu yëpp maanaam moom dafa bokk ci nga xam ne moom lañ doon wax fuqahaa u muhaddisuuna yu mag yi nga xam te ne non seulement benn duñ solo lu dul ko wér ñaar duñu euh, jël lu dul wóor ñett duñu Euh, dañoo dañoo nekk ñoo xamante ne ni ñu aaye ni ñu nekkee ay référence ci xalis noonu lañu nekkee référence ci fiqh d'ailleurs mazhabam as-sawriya bokk na ci mazhab yi nga xam ne ñoo mujjee jeex moom ak euh, mook al-Awzaa'i ñoom ñaar bokk na ci mazhab yi mujjee jeex moom mazhabam demoon na ba six jàpp septième siècle ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw gi ci la ci la ci la ci la ci la ci la jeex euh, beneen bi ci des moom mooy ci tafsir référence la ci boo demee ci téere tafsir waaw qaala sawri qaala sufyaan sawri nangam ñett beneen bi ci des mooy ci wàllu tasaw boo demee ci téere tasawuf yëpp dañ lay nettali ay histoire am wala ay euh, mbiram wala ay waxam et cetera dafa nekk référence maanaam ñoom ñooy fuqahaa muhaddisu nga xamante ne ñoom dañoo bokk te ñu mel noonu ñoom ñii nga xam ne ñooy fuqahaa muhaddisu yi nii wan na maanaam mooy ñi yor mooy ñi yor maqaama maanaam lu ci ëpp ci ñoom maanaam ci ñii ñuy tudd dañu yoré maqama al muhdas maanaam muhaddasuuna yi hmm. ñii yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne Seydina Omar ci ñoom la bokk radiyallahu te ñooñu juste ñooñu ñooñu ñoy ñi gëna kawé parce que ñooñu la yalla di diyalé mi ngi melni tay bu ñëwee waa ahlul qurba maanaam waa maqaamul qurba moy ñi jégué yalla ñi nekk ci présence bi jégué yalla lool hmm. c'est comme say tay bu ñëwoon wa cour royal manam nga xamantene euh plongeurs yi sax ci la ñuy bokk ñiy garder buntu palais bi ci lañ bokku ñi maanaam ñiy ra ñiy cuisinier yi ci lañ bokk ñiy defar saal bi ñëpp ci lañ bokk mu muhaddasuuna yi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci cercle présidentiel c'est-à-dire que cercle royal maanaam fii décision yu mag yi di jóge mm-hmm. euh, bureau bureau direct bu roi mm-hmm. foofu ñoom foofu lañ seen maqaam foofu la ne bëri na ku nekk ci xurba maanaam ñu naan ñu ko ci présence bu jege yàlla bi proximité jege yàlla fekk moom ci ci ci ci mësta dugg euh, ci ci ci ci kii bi maanaam kiiwu imagé la maanaam pour ñu comprendre li ñu maanaam mësta yegg dëgg-dëgg ci salle bi nga xam ne foofu la ñuy diyalee di di joxe décision yu mag yi moo tax ne ñoom foofu lañ moo tax nga gis Seydina Omar radiyallahu anhu lu wax day dëppook alxuraan lu mu wax day dëppook hadis maanaam moom da nga gis daanaka xaw tuuti du doonul woon mën a wax leneen lu wuute. ak loo xam ne alxuraan wax na ko ci yax wala xadiis yi yenn saa wax na ko ci yax ñoom tamit noonu lañ mel ñoom tamit noonu lañ mel ngir seen sell ci seen jaamu yàlla seen dëggu te ak seen suubu ci yoonu xam-xam surtout moo tax fuqahaa mu xaddis wu ne ngi gis ñu yegg ci maqaama yu mel noonu ci biir maqaama yu mel noonu ci la ñuy bokkee ci umanaa yi nga xam ne ñoom ñooy wàccaat ci suuf si voilà te. Euh, comme li euh, al imam al xaakim ak tirmisi wax rahimahullah ci xaatimul awliya te téeram la bu mu tuddee noonu mu ne ki ëpp daraja nag ci ëpp cër ci maqaama boobu mooy muhaddasuuna yi mooy mooy ki ndax ñoom ñooy ñi gën a kawe ñépp ki leen ëpp cër ki ëpp cër ci loolu moom mooy ki nga xamante ne moom mooy alxatm ki nga xam ne mooy xaatimul awliya kooku mu ëpp cër ci domaine boobu waaw dégg Euh, mu ne mu ne xadda kon Sufyaan mu ne an Mansuur ñi ñi ñoom la mooy sufi umul fuqaa moo xaddas mu ne Mansuur ibnul Mu'tamir ah Mansuur ibnul Mu'tamir ibnu Abdullah ibnu Rabi'a moo tax képp kuñ la wax ci ñoom ak histoire am da nga naan non mais c'est pas possible est-ce que àdduna mës na am ko mel nii ngi koo ci dégg ci moom day mel ne bii tey tey laay doog a dégg ku màgg maanaam doo leen seetlu ah. wax ci kenn ci nga maa ngi doog a dégg ku màgg ndekete kii maanaam ñoom noonu lañ la voilà Ah, Mansour ibn Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a rahimahullah Abu Itab as-Sulami ah, rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom tamit ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta moom tamit dafa bokk ci ñi nga xamante ne du ñu soloo lu dul ci ku wér képp ku ñu soloo ci yow c'est parce que ku dëgër te du wax lu dul lu dul lu jub maanaam du ñu waxi caaxaan bokkul ci seen mbir noonu lañ nekkee ñoo xam ne ay imam lañ yu mag rahmatullah alayhi an ibrahim moom it ibnu yazid euh, an-Naxa'i rahimahullahu taala mooy Abu Imran mi ngi gën a àdduna quarante-sixième année ginnaaw bi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi di imam di imam nekk sëriñ bu mag bi rahimahullah euh, nga xamante ne Euh, léeg-léeg am na yenn kàddu yoo xam ne ci fiqh ci wala ci tasawuf ci kii yu bëri ci moom la jóge nga xamante ne euh, voilà maanaam daanaka euh, ku ku jarte présenté la maanaam daanaka jarte présenté ibrahim ibnu yazid an-naxa'i rahimahullah anil aswad mooy tamit ibnu yazid an-naxa'i rahimahullahu taala abu amr dañ koy tamit abu abdurrahman ñaari kuni yooyu la am ñuy génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom seen xadis ñu ngi ci kutubu si an Aysata mooy ummul muminin radiyallahu taala anha naa xaarat nee kuntu nekkoon na axita si doon sangu ana man wan nabi yonent bi sallallahu wa sallam min ina in ci ndab waahidin bay benn kilaanaa ñun ñaan ñëpp fekk junubun dañoo amee woon janaaba maanaam nga gis ne euh, loolu mooy benn man ak bi sallallahu alayhi wa sallam dañ benn ndab fekk ñun ñaan ñëpp ñi ngi amee janaaba loolu waxoon nañ ko loolu jotoon nañ ko jàngat bokk na ci liñ ci jàngee moom mooy mooy dafa bokk ci sunna mooy di sangoondoo ak soxna si boo leen amee janaaba wala bokk muy doog a fii nag imaamul Buxaari rahimahullah da ko indi ci bunt bi ngir wane ne ñoom ñaar maanaam li tax mu indi ko fii amaat ñaari mbir moom moo tax bu njëkk bi mooy wane gi muy wane ne ki amee janaaba ak ki amee mbërëg ñoom ñaar ñoo bokk àtte cangaayal farata gi war ki amee janaaba mooy jëmmi cangaayal farata gi war ki amee mbërëg te jigéen ji bu noppee ci ay mbërëgam mën ngaa bokk moom sangoo farata comme ni nga xam ne noonu ngay bokkee moom sangoo farata bu amee janaaba loolu moo benn ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, bu ñu amee mooy ne mooy euh, bii daf ko boole ak yeneeni xadis yoo xamante ne xaqiqatan benn xadis la yoo xamante ne yëpp benn rek la ñoom la waxandoo boobaa yeneen yi ci des moom la gën a jublu ci mbir mi waaye euh, kon dañ ci xamee tamit ne maanaam ne euh, way dencante yi kenn ku ne di gis sa awray morom loolu dara ayu te d'ailleurs loo fa ñoom rek a dagane ci seen diggante lu rek la dagane feneen fu mu mën a dagane mooy lu demee nekk gisoo nañ ko ci xadiis Seydina Muusa bi alayhi salaam mooy par exemple mu nekk loo xam te mënta ñàkk ngir médecine ngir ñu war a faj nit ki. wala boog yu mel noonu wala boog ngir ñu mën a saxal mbir masalan tey euh, euh, comme par exemple juge bi soxla ko ngir mën a daganal sëy par exemple tey nit ki bu ne euh, bu bu soxna si ñëwee ne damay damay damay damay ñaan sama baat ngir ne bor sama borom kër kat moom. cëram euh, du du du taxaw bu waxee loolu euh, waa ji ne du dëgg ndaw si li wax dara du ci dëgg dara amu bu boobaa loolu day laaj atte boobu maanaam lu demee nekk noonu xanaa yu mel noonu waaye su dut yu mel noonu rek du mën dagat euh, beneen bi ci des mu ne mu ne mu ne wakkaane te nekkoon na yàq muru nii daal ma digal fa attaziru ma daal làmbaayoo maanaam làmbaay mooy ma jël euh, benn sër ma wordoo fa yu baasuru nii mu jonjoo ak man wa ana fekk man xaa idun dama amee mbërëg loolu beneen beneen la maanaam mooy kon ki nga xam ne moom moo amee mbërëg mën ngaa defa ndoog moom lu bari mën ngaa mën ngaa jonjoo ak moom mën naa naan nga jox ko mu naan comme li doon wax dama daan naan sharib kuntu ashrabul maa fa unaawilu nabiy sal nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa yadau faahu mawdia fiya maanaam dama daan naan jël naan ndox nii jox yenent bi jottali ko sallallahu alayhi wa sallam mu daal di teg gémminam place bi ma nga am ne moom laa tegoon man sama gémmin mu ne fekk damaa amee woon mbërë maanaam kon loolu mën naa ne maanaam mooy amul lu ñuy seexlu ci ki am mbërëg amul dara mbooleem li nga xamante ne liñ ciy wax mbooleem liñ ciy wax ay xusaa bi laaj la ay togg gu ku mbërëg togg ak ku mbërëg togg nangam ak yooyu yëpp ay caaxaan la voilà dégg euh, loolu beneen mbir la boo xamante ne euh, euh, Euh, xadis bi da koy tegtale beneen mbir bi nga xamante ne xadis bi da koy tegtale mooy yonent bi sallallahu alayhi maanaam mooy mooy mooy nekkoon daf daal daf ko daan làmbaayoo maanaam mooy waxoon nañ la ne am na ñetti étape ñetti mbir yoo xamante ne ñaari extrêmes yi benn bi ñëpp d'accord nañ ne dagan na beneen bi ñëpp d'accord nañ ne daganut bi ci diggante bi foofu la borom xam-xam yi wuutee rahmatullah alayhim ñi nga xamante na ñoom ñooy jumhur ëpp ci yi rahmatullah alayhim Euh, ñoom dagan dañ ne maanaam faw nit ki takk li nga xamante ne moom mooy maanaam jigéen ji faw maanaam diggante jumbaxam ak oomam nit ki faw mu am maanaam jigéen ji faw mu woddoo dara maanaam munoo nit ki boroom këram mën naa bànneexu ci soxna si ci jamono ci jamono jamonoy mbërëgam waaye ci sur ci condition ci condition mu woddu waaw maanaam mu am lu dox seen digganteem maanaam ak yaramam mais direct ma du war a am contact direct ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha hanabila rahmatullah alayhim amna tamit mbolo ci maliki rahmatullah alayhim ño xamantene ak shafii tamit amna daganal nañu ba mu am contact direct ak yaram waye maliki rahmatullah dañ koy tere ci buntu saddu zaria ñoom dañu saddu zaria la lutax parce que dañ ñi te d'ailleurs looloo tax hanafi ñom tamit ñoom ñep ñu wax ñu tere hanafi xanafi yi rahmatullah lan lan saddu zaria mooy tey haramu ci ciosan mais dañuy bañ suñu bàyyee nit ki mën a bànneexul ci diggante jumbax bi ak oom yi mu weesu foofu dem ba dugg ci lii nga xam ne moom lañuy ñuy tere bañ googu koy bañ nag moo tax ñu daal ko koy tëjal bunt bi ñu ne dafa xaram loolu moo tax am ci fuqaaw maaliki rahmatullah ñoo xamante ne dañuy daganal dañ ko daganal euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaa bi lay rahmatullah alayhim te loolu tamit wax la bu toxal ci imam Ash-Shafi'i rahimahullah mooy dagan na ba mu des sëy sëy rek xaram comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon gisoon nañ ko ci bunt bi xaddi aaya bi nga xam ne moom la wax ne moom la ubbee téere bi bi mu ne isna'u kulla shay'in illa nikah def leen lépp ba mu sëy maanaam mooy ne ko lépp dagan na moo imam Ash-Shafi'i ne góor gi mën na sax teg cëram ci ginnaaw ndaw si bànneexu ci def lu ko neex mais li muy tere mu am moom mooy euh, mooy pëyam dugg ci biir pëy loolu rek la tere loolu rek la ñuy tere waaye jonjoo bi lépp dagan na même ku dee directement lee daal la ñuy tere te ku ko def sopp nañu nga joxe diinaat wala genn wàllu diinaar comme ni ko xadiis Seydina Ibn Abbas bi radiyallahu anhu maa wax lan mooy loolu mooy ne ki nga xamante ne dafa jote dafa dafa jote ak soxnaam maanaam accident am na maanaam waa ji daal finalement mbir mi metti na ci moom mujj naa jote ak soxna si benn dafa xaram soxna si permettre waa foofu moom daf daf fee war a maanaam permettre waa ji mu jotee moom waaye bu dee dem nañ ba nga xamante ne seen bànneexu bakkan noot na leen nanga ba ba def nañ ko boobaa waa ji moom day génne diinaar walla génn wàllu diinaar lool nag ni ko borom xam-xam yi rahmatullah am te te te firee mooy ne day joxe diinaar suñu nekkee su nekkee ci digg mbërëg gi waaye bu demee fekk na jeexaloon na mbërëg gi waaye daa sangoogul farata mu daal di joxe génn wàllu diinaar wala boog mu toll ci jamono ji nga xam ne de deret ji nekkatu woon di génn waaye mi ngi woon ci fin bi boobaa genn wàllu diinaar tam lay joxe ngir mën koo kafaar waaye nag loolu mooy su amee kattan gi su ko amul nag dara du ko ci war lu dul ne tuub daa war a tuub ngir bàkkaar ba mu def mooy jote ak soxna si fekk lan fekk soxna si dafa nekk ci jamono yu mbërëgam euh, diinaar nag Euh, mi ngi di tolloog jamono ji à peu près ay deux cent cinquante euros kon voilà euh, nga nga ko xoolaat mu ne wa te nekkoon na moom yeneen bi sallallahu nekk na ko xam ne yuxriju daan na génnee raxsahu boppam ilayya jëm ci man woowoo fekk moom mu'takifun mi ngi i'tikaaf loolu tamit waxoon nañ ko fa arsiluhu ma daat koy raxas wa ana fekk man xaaidon maa ngi gisee mbërëg subhaanallah gis nga imaam al Buxaari ni muy doxale gis nga xadis bële fa urajjiluhu la doon wax xadis bi mu doon wax ci ne da ko doon peñe foofu waxu fa raxas bopp xadis bii nga xam ne mooy wax raxas bopp mu indi ko feneen maanaam ngir wax la ne la mbir yi maanaam bële peñe bi mook raxas bokk ñoo bokk àtte waaye boo xoolee xadis yi di nga ci gis lu lay tegtale ne raxas bopp tamit doon na ko def ngir ne ñaari ñooy ànd maanaam peñe bi gën a defar bopp bi raxas ko et cetera voilà loolu tamit mooy wane ni ki nga xamante ne moom moo amee mbërëg mën naa mën na laa defal lépp mën ngaa nekk moom comme ni nga xamante ne loolu gisoon nañ ko Eh, gisaat ko eh, walla alhamdulilah min na xadis bii nii ni mu ñëwee nii maanaam eh, ñetti ñetti xadis la yu yoo xamante ne imam al Buxaari rahimahullahu taala daf ko indi et fii rek la ko indi maanaam rahimahullahu taala nga xam ne ay saa maanaam ay parti am na nag ay parti parti yu bëri bëri yu mu ko indi mais ni mu leen tegalee nii fii rek la ko indi loolu mooy benn beneen bi ci des moom mooy daf ko wéetoo wëllif imam muslim rahimahullah muy ñaar ñetteel bi moom mooy moom rek moo ko indi ci waa euh, asxaabu kutubu sitta rahmatullahi ala aljami mu euh, ibn xalil te rahimahullahu taala mooy ismail ibnu xalil alxazaz dañ koy wax tam ibnul xalil alxazaz dàkkantam ne kon abu abdullah alkuufi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent vingt cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci taabii taabii la bokk maanaam ci ñu teel a génn àdduna ci la bokk rahimahullahu taala maanaam deux cent vingt cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax imam al buxaari imam muslim ñoom ñaar ñoo solo xadis ay xadisam imam Bukhari ak imam Muslim rahmatullah imaamu Bukhari soloo na ci moom juróom benn xadis imaamu Muslim soloo na ci moom ñetti xadis kese amma imam euh, Abu Dawuda rahimahullah ci ahadisu Malik la solo ci moom waaye solowul ci moom ci ci sunanam آه، موي اسماعيل بن آه، خالد الخزاز رحمه الله تعالى قال لنا اخبرنا خبرنا علي بن مسير مو حديثه نيغي كتب سته علي بن مسير بي امام المسلم آه، مو اوبل مسلو تي رحمه الله علي بن مسير القرشي ابو الحسن مو داكتم الكوفي رحمه الله تعالى بوكون تي سيرين الاسلام ميم نيغي خنم لا نين تودي شيخ الاسلام مقا مانام مرتبه لا تي تي خم خم بو خم نيت كي بو دجالي خم خم يو بري ان ميم temps dañ koy mën a tuddee loolu cheikhul islam moom bokkoon na ci mi ngi gane àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-neuvième bi sallallahu alayhi kon nuñ ko waxee léegi xadis ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana abu ishaq mu tekki ne huwa a moom mooy ashaybaani maanaam dañ bàyyi nga ko ku mel ne abu ishaq as-sabi'i ah maanaam nga xam ne abu ishaq a shaybaani la rahimahullahu taala mooy suleyman ibn abi Euh, Ash-Shaybaani rahimahullahu taala ndax waa ba euh, mawlaa la maanaam ñi ko góor rek ñooy waa banu Shaybaan ibnu Salaba rahimahullahu taala am na ñu ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko goreel goreel euh, moom mi ngi génn àdduna cent trente huitième année comme li imaam Tirmisi wax rahimahullah na cent trente huitième année la génn cent quarante et unième année la génn àdduna waaye amaan na lii nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër mooy ne cent trente huitième année la ci la génn àdduna euh, rahimahullahu euh, taala d'ailleurs bokk na ci liy gën a dëgëral lool mooy ne imam al Buxaari moom bu ne cent quarante et unième année la wax ko imam at-Tirmizi imam at-Tirmizi jàpp loolu di gëstu di gëstu di gëstu ba gis ne cent trente-huitième année la ndax imam al Buxaari sëriñu imam at-Tirmizi la xam ne daanaka du xaw a wax lu wuutee li imam al Buxaari wax lu imam al Buxaari wax loolooy waxam kon bu demee ba changé avis nee 138e année ci la génn àdduna loolu mooy wax jooju moom mooy euh, lii gën a dëgër insha allahu taala mm-hmm. mu ne euh, an moom tamit xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abdurrahman ibn al aswad al aswad bi ñu doon wax sax doom dafa am doom ju màgg koo xam ne borom xam-xam bu rëy la mu maanaam faqih xadi muhaddis euh, rahimahullah taala bu tuddoon abdurrahman abdurrahman ibn aswad ibn yazid mm-hmm. annaxaay rahimahullahu taala mu am ñaar dàqantal abu xafs ak abu bakar annaxaay alkuufi rahimahullahu taala maanaam suñu xalis bee weesu la ak suñu xadis bi ñoo yem ci benn mbir mooy waa kuufa ñoo leen solo voilà rahmatullah boroom xam-xamu kuufa yi daal mm-hmm. ah, ñoo leen solo eh, dégg moo tax bokk na ci al ulama ul amilina yi maanaam te gis na sayyidat Aïcha radiyallahu taala anha moom Abdurrahman ibn al aswad bi ngir ne bàyyam yóbbu woon na an abi mu jël ko ci bàyyam al aswad waxoon nañ ko léegi an Aïcha mooy sayyidat Aïcha radiyallahu taala anha ah, umul muminin radiyallahu anha qaalat nee na kaanat nekkoon na ihdaana kenn ci ñun ida kaanat saa yu nekkee haidan di gis mbërëgam mm-hmm. maanaam kenn ci ñun soxna yent bi saa bu daan gis mbërëg fa araada te mu namoon rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an yubaashiraha ci mu jonjoo ak moom amaraha daf ko daan digal an taftazira ci mu ci mu eh, làmbaayoo fii fawri xaydatiha ci jamono yi nga xamante ne moom la mbërëgam di tuur maanaam jamono ji mu nekkee ci digg mbërëgam daka daan digal mu daan wóor mm-hmm. summa topp yu baashi baashiruha mu jonjoo ak moom Euh, moom xam na ne moom noonu la doon yonent bi sallallahu di doxale ak moom xam na ne wujjam yi tamit noonu la yonent bi sallallahu doon doxale ak ñoom maanaam loolu day tekki ne du ne mbir mi sayyidat Aïcha radiyallahu anha rek la ko doon defal mais da ko doon def ak ñeneen ñi ci des ñëpp te loolu benn bii lii day xadis bii day wane mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekkee comme ni ñu ko doon waxee maanaam euh, maanaam modèle universel parce que ba ci biir néegam yi nga xam ne ñooy yi gën a intime dañ koy nett bi loolu day wane ne vraiment kii modèle bu universel la amul lenn lu ñu nëbb ci ay mbiram loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy day wane ne euh, kon mooy day dëgëral li ñu doon wax léegi rek maanaam li tax maanaam mooy ne lii lii lii jaaru mooy ne jigéen ji bu bëggee am lu mu joteeg boroom këram mooy mu bañ a am contact direct ak yaramam moo tax fuqahaa maalikee rahmatullahi alayhim indi saddu zaria ci bunt bi ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi lii la doon def bu boobaa ñu xamee ci ne xeet bi tamit lii lañu war a toppandoo maanaam kon njuumte la ci nit ki di jot di am di jonjoo ak soxnaam jamono ji muy gis mbërëg ci soxna si du wodd maanaam du am dara lu muy def ci digganteem jumba xam ba ci omum loolu njuumte la en tout cas dëppuwul ak sunna yeneen bi sallallahu lii la daan def Euh, moo tax mu teg ci ne xaalaat mu teg ci ne wa ayyukum ana kan ci yéen moo am mu mën a téye irabahoo bànneexam kama kéem ni nga xam ne kaana nekkoon na annabi maanaam irab mooy euh, irba irbaho parce que dafa irbaho am na jeneen riwaaya irabaho ndax irba moom mooy irbun mooy Euh, mooy bànneex bii jañ nit ci mu bëgg a jote ak soxna si wala soxna si bëgg a jote ak boroom këram mooy bànneex boobu mooy irbu am na euh, léeg-léeg beneen firi bi mu am mooy irab ci yenn boroom xooxam taal moom mooy cër bi nit maanaam mooy cëru nit ki rek ci boppam bi muy mooy sakkaram maanaam bi muy euh, bi muy jotee ak soxnaam dégg nga mu ne ana kan kon moo mën a téye banexu bakanam manam ba astaghfirullah banexu parce que lolu benen bir bu détail important ci si ci ne euh ay problème bi fi C'est jógee de quatre mais dañuy évoquer yeneeni problème fekk loolu jotewul dara ak di xas maanaam problème bi fi ñuy jógee maanaam bon yooyu en fait ay conséquences la duñu cause cause bi mooy ne euh, soit waa ji wala ndaw si day bañal boppam keneen ki ci anam goo xamante ne keneen ki day mujj am benn frustration bu métti bu koy dal te loolu souvent góor def ci faible mënul daanaka bañal maanaam mënta résister loolu maanaam pour moom bu soxlaa soxna si faaw soxna si da ko war a wuyu te loolu mooy li jaadu waaye euh, léeg-léeg itam góor gi maanaam fii day wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam danaan téye boppam danaan téye boppam lii dañ bokk na ci liñ ci xamee mooy ne euh, léeg-léeg soxna si du am envie maanaam bokkut ak rek ne gis na maanaam lii ngir ne mbërëg gi ni day gis mbërëgam attention gis mbërëg gi dafay yor aussi à tey mais moom nekkul ci disposition bu mu mën a jotee borom këram maanaam ngir ne mbërëg bi da koy teree jote ak borom këram mhm. mais léeg-léeg it soxna si day nekk ci disposition boo xam ne vraiment du am envie bi ngir ndey day sonn ngir xelam day ngir xel mi jaxasoo ngir nangam ak nangam mhm. loolu da koy dal mais loolu bu ko dalee souvent góor gi du mën a du mën a muñ loolu loolu lu ci ëpp góor gi mënta muñ loolu bu boobaa nag compromis day daal di war a mën a am maanaam lu demee nii comme li yonent bi sallallahu alayhi maanaam nga xamante ne euh, fii nga xam ne Sayyidat Aïcha radiyallahu nee na ñun soxna yenn saa sam nii la yonent bi daan doxalee ak ñoom suñu nekkee ci ngant maanaam jamono ji nga xam ne dañoo nekk ci ngant maanaam dañoo gis suñu ay mbër te gis mbër gi day daal di taxaw taxawaayu beneen acte bi maanaam munoo tamit ne awma envie bi rek et que waa ji moom dafa war a tudd noonu nelaw ça me jom voilà déedéet Madame tamit il faut que affaire voilà euh, kon loolu a bi dit de de de bi ci des les ne euh, ne tamit nit ki dafa war di sam ci di les di tamit yenn ci euh, ci maanaam mënta nekk tout le temps tout le temps muy sëy tout le temps tout le temps tout le temps loolu tax loolu tax loolu tax dese naa jaaru waaw eh? ah. hmm? voilà beneen beneen bi ñu def Euh, ne mooy atte bi nga xamante ne moo tax imaam al-Buxaari indi ko rahimahullah mooy bu ñuy jotee ak soxna yi maanaam ñu ci jamono yooyu mu am tamit teggin yi nga xamante ne moom la ko war a defe euh, te loolu tamit lu am lu lu lu mat a bàyyi xel la daal maanaam ci ci ci néegu sëy maanaam euh, règle yi nii lu mat a bàyyi xel la ci néegu sëy ndax bëri na sëy yoo xam ne di ko tas loolu kese la après ku goor ki moy nek ci frustration momit décoller wala ku jigéen ki nek ci benen frustration mom tamit commencé di décoller ñu nek ku nek di gis ci sa morom yenn jikko yo xam ne daanoo ko gis avant fekk li tax mooy comme ni nga xam te am ah comme ni nga xam te que la nekkee lu yanu manam manam nit ki manta and ak manam way dencante yi ñu and légui jote kenn ku ci nekk gis ne dab nga sa bànneex ci mbir mi ngeen xëy kenn ku ci nekk ne la ne sa morom boo léegi li ñuy def mooy euh, dama bëggoon ñu tas loolu du am du demee noonu foo déggee dama bëgg ñu tas mooy toog nañ jamono ju ñu jotewul moom foo déggee dama bëgg ñu tas xamal ni toog nañ jamono ju ñu dara maanaam euh, loolu. moo tax yonent bi sallallahu maa wasallam malgré que soxna yi dañuy nekk seen jamono yu mbërëb da daan jote ak ñoom mais ci anam ji bokk na tamit ci liñ ciy jànge mooy ne euh, mooy ne xaraamul man yu di di di di maanaam ku góor gi di tuuru ci biti pëyu ndaw si ndax jote jii su amee ñaare man yu bi dana jañu mm-hmm. du dëgg te kon bu boobaa dañ ci xamee ni du xaraam man yu bi di jañu di di di génne maanaam lii xaraam maanaam ci dinañ ci yegsi incha allah mooy maanaam moom nit ki ci boppam rek nekk di di di di di di foowee boppam maanaam bay génne man yu bi noonu waaye bu fekkente ne dafa ànd ak soxnaam ba man yu boobu génn loolu du xaraam voilà loolu muy beneen mbir ah beneen bi ci des mooy. Euh, kon dañ ci xamee tamit ne maanaam parce que euh, loolu rek ci la problème mu azal azal mën a amee maanaam azal mooy di joteeg soxna si ba man ni war a génn nga ko ci biti ci loolu rek la mën a amee bi ci des tamit moom maanaam te te bu boobaa kon dañuy gis ne azal amul problème comme ni nga xam ne ni ko gisee insha allah ci kitaabu nekkaa beneen bi ci des mooy dañ ciy xamee tamit ne euh, jotee ak soxna si fekk euh, ñaari njongu yi dañoo dañoo dañoo euh, daje comme ni nga xam ne noonu la ko xadis bi di waxee maanaam mooy nit ki sëy na ak soxnaam mm-hmm. fekk dafa am lu mu teg ci cëram mm-hmm. loolu tamit dafay xaram maanaam lu demee nekk préservatif masalan mm-hmm. munoo fekk da am dafa gis mbërëg ndaw si di gis mbërëgam ngay jote ak moom te naan amuñu contact direct loolu dafa xaraam même bu dee prés maanaam du demee nekk ak ay ay ay préservatif ak yu mel noonu loolu ba tey day xaraam mm-hmm. voilà dégg nga mu ne taabaawoo xaalidun hmm mu ne taabaawu xaalid te moom mooy xaalid ibnu abdullah ibnu abdurahman ibnu yazid abul haysam rahimahullahu taala ak abu muhammad mooy dàkkantalam mi ngi génn àdduna soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa sallam moom abul haysam eh, al wasiti attahaan eh, rahimahullahu taala eh, moom wa jarir ak jarir ibnu abdul hamid ibnu jarir ibnu qurt moom gisoon rahimahullah taala abu abdallah al kufi rahimahullah moom mi ngi génn gane àdduna cent dixième année génn àdduna cent quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi kama naam loolu la mu ne ir mu ne ay wa ayyukum ana kan ci yéen yamliku moo mën a téye moo mën a téye moo am moom moom moom moom moom irbawoo bànneexu sëyam kama kem ni nga xam ne kaana nekkoon na annabi yent bi salaa salaam yamliku doon moom irbawoo bànneexu sëyam maanaam foofu daf doon tegtalee ne maanaam euh, nit ki bu mu jël risque comme quoi yenent bi salaa salaam nii la doon def ak ñun maanaam dañu daan digal ñu wodd te yenent bi salaa salaam moo la dàq téye bànneexu sëyam segam moom manoon na loolu te yow nag ah mi manut mi amul kàttan googu bul jël risque bu mu dul woon jël moom salaa salaam maanaam bu wax ji loolu lay tekki dégg nga moo tax kon taabaa ah, kon waxoon nañ ko léegi Xaalid te moom mooy ibnu Abdullah ibnu Abdurahman ibnu Yazid al-Muzani rahimahullahu taala ah, wa Jarir te moom mooy ibnu Abdulhamid al-Kufi Abu Abdullah ar-Razi rahimahullah ah, ad-Dabbi mi ngi gane àdduna cent dixième année génn àdduna cent quatre-vingt-septième année ginnaaw yonent bi saa sama an Shaybaani ci jële ko ci Abu Ishaq Ash-Shaybaani ñoom ñu jële ko maanaam kon mu taabaa gi Ali ibnu Musir la maanaam moom lañ mu taabaa kon maanaam ñoom ñii eh, Xaalid ak Jarir ñoom eh, ñoo jëlee ci eh, Abu Ishaq Ash-Shaybaani rahimahullahu taala rahmatullahi taala ñoom yëpp tamit seen seen xadis maanaam amma xadisu xaalid bi moom abul abul qasim at-tanuuxi moom solo na ko ci yoonu wa wahb baqiya amma beneen xadis bi moom mooy bu jarir bi moom tamit abu moom abu daawud al ci li mu def ci xadisu yent ci ci saxiixul Buxaari al Ismaayili dafa def mustaxrajaat saxiixul Buxaari ak al xaakim moom ci mustadrakam rahimahullah taala ñoom ñëpp soloo nañ ko rahmatullahi alal jamii xam naa xadis bi ci tegu dañuy bàyyi ba beneen yoon insha allahu taala même sens bi la am xadis bi ci tegu même sens la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 waaw léegi ku ku góor ki moom dafa rek ndax ku góor ki ak ku jigéen kenn ñoo war a génne dinaar. Mhm. wala boobu. déedéet ku góor ki rek moo joxe dinaar waaw. yu bëri bëri yi nga xamante ne ay actes la yoo xamante ne day aju ci ku góor ki ci ku jigéen ki même kafaara ci bëccëgu weeru koor boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku góor ki rek la digle woon ne ko na nga def kafaara bi maanaam mbir yu mel noonu su amee ñaare ku góor loolu mooy tegtale ne ku góor ki loolu mooy tegtale ne responsabilité bi ci ëpp ku góor ci ku góor ki la tegu donte ku jigéen ki dafay xaraam ci moom mu teg mu mu daganal boppam maanaam mu mu yombalal maanaam mu mu bàyyee boppam borom këram maanaam mu mu mën koo jox boppam maanaam dañ ko koy dafay xaraam ci moom. waaye su demee ba am itam maanaam daan gi bàkkaar bi ñoom ñëpp comme te dañoo war a tuub waaye daan gi nga xam ne moom la tegee muy kafaara gi ki nga xamante ne moom lañ koy teg moom mooy góor gi ci li gën a wér incha allah wallahu taala alam te loolu eh, day day day day tegtale beneen mbir mooy jigéen ji maanaam ñakka a dagan gi mu ñàkk dagan ci muy bañal boppam borom këram voilà loolu ak gravité bi nga xam ne moom la ci nekk comme ni ko yent bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne bu góor gi fanaanoo ngir mer ci loolu xam nga loolu moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na kan ci yéen an an ayyukum yamliku ko kama kaana nabi sallallahu alayhi kan moo mën a téye bànneexu sëyam comme yéen ni yent bi defoon ni ko ci yéen comme ni ko yent bi meloon sallallahu alayhi wa parce que loolu bokk na ci cause yi gën a yi gën a tax góor ñi maanaam góor mere jabaram mais loolu moom mooy cause numéro un mooy li nga xamante ne moom moom ñaare day waral vraiment góor gi ñu maanaam mere ci jabar ni ki noonu tamit borom kër gi jëkkër ji tam loolu tamit tamit amul droit wu comme ni mu nekkee ci ku góor ki rek borom kër gi tamit amul droit di bañal boppam soxna si parce que tout simplement loolu tamit beneen mbir la moo xamante ne jar nañ leeral ci buntu boobu waaye day wane ni mbir mi gënee nekk responsable nekkee gravité ci ku góor ki da ci jigéen maanaam ku jigéen ki di bañal boppam borom këram comme ni ko xadis bi waxee ne day fanaan fekk malaaka yi ñu ngi koy rëbb ba keroog muy nangul boppam borom këram.

pour réciter le Coran, non. Pour tenir le Coran. Non, non, je ne parle pas de ce athée là Moi, je parle de pour réciter le Coran. D'accord. Quand, on a les, quand on n'a pas les ablutions Voilà. Quand on n'a pas les ablutions et quand on a du djanaba. Voilà, là. laa lay wax nag te la ñoom du ñu benn So amee janaaba ak so amee mbërëg ak ci nga am na ay mbir yu ndaw ndawaan yu ñu jéggi selon mazahib bi euh, comme niñ la ko waxee ne dañuy jéggale par exemple ngay jàng alquran par exemple pour laye ko argumenté wala ngay jàng alquran ngir loo musloo yooyu noonu mën nañ koo daganal mais yiñ dul daganal mooy nga jàng al mooy nga nga jàng alquran bu bu bëri mais loolu ki amul njàpp problème voilà c'est ça que je voulais dire. les ablutions par contre ça hmm. c'est pas grave. voilà. ça euh, le le le le plus recevable c'est. Euh, amul problème non loolu kenn waxul non loolu ijmaa qui ki amul jàpp man na jàng alxuraan lool kenn waxul ne mënta jàng alxuraan hmm. li wax hmm. waaw lool différence ah, mhm. La deuxième, c'est euh, pour le Isar. Pour le euh, Oui, oui, d'accord. <coughs> Voilà. Est-ce mhm. que ça peut être ça, par exemple, un pantalon Oui, oui. Donc, c'est pas forcément un, Non, non, non, non, non. C'est tout ce qui. lui, lui lui lui lui lui lui Abou Walid Abou Walid. Ouais. T'as dit il est sorti. Euh, il est sorti. Non, dafa Yoni. Attends, t'as dit il est décédé un an après l'Égypte. Non, il est né. Ah, donc c'est bon, j'ai compris. Voilà. Parce que je ne comprenais pas comment il pouvait aller chez Abou Walid. <laughs> Et dernière question, c'était. Euh, ah, c'était euh, quand on a dit dans le hadith 280. On a dit. Euh, euh, en fait, je me demande comment ils font les chapitres. Pour, euh, parce que tu sais, on avait dit, eux, ils, dès qu'on touche la femme, eux, ils vont refaire les ablutions. Mhm. C'est ça qu'on avait dit pour les chapitres. du coup, eux, comment ils interprètent alors le 296 Ok. Parce que ñoom dañuy wax ne xadis bi amul luy wane ne yeneen bi ça alayhi wasallam demul buñ ko peñe dara wanewu wu parce que amul luy wane né dañ ko peñe rek mu dem julli su doon dañ ko peñe rek mu ñu peñe ko rek mu daw daal dem kàbbar allahu akbar effectivement duñ am lay mais amul luy wane né demul jàpp ji ci digënté bi. mais s'il était parti diapo quand il serait revenu il aurait fait deux rakat de salutation. wa mais rien ne nous dit que deful loolu. Mm-hmm. et rien ne nous dit que moment bi ñu koy def mi ngi woon ak njàpp bi ñu koy peñe parce que nekk ci biir jàkka fekk da nga yor njàpp loolu du charte teggin la teggin la mais du condition ci njàpp ci ci ci ci ci ci nekk ci jàkka beneen bi ci des mooy kii di jàng alxuraan voilà loolu fàtte woon naa ko <laughs> loolu loolu <laughs> loolu benn détail la bu am solo ci ci jàng alquran fekk nit ki yorewul njàpp wala boobu mi ngi ñàkk njàppam voilà maanaam <laughs> ki di jàng alquran fekk yorewul njàpp am na droit bi sauf que moment bi muy perte njàppam <laughs> dañ naan ko ah noppil ba ngelaw li génn ba pare <laughs> nga doo nga yeggale sa njàng loolu mooy li nga xam ne moom eh? voilà moom mooy teggin gi voilà voilà <laughs> voilà donc ça ça j'ai compris. voilà. et après pour la question la dernière question c'était le euh, i'tikaf. Ouais. Ça, en fait c'est juste le fait de dire euh, cette soirée là euh, je vais dans la mosquée. oui ou ce jour là manam, c'est moi comme genre khalwa la Manam, Moi, tok ci tu jàkka ji nekk ci ben point. di jaamu yàlla di zikkar di jàng alquran di julli ak yu mel noonu lépp boobu loolu soo ko defee rek yaa ngi ci i'tikaf maanaam boo yéenee ni i'tikaf nga ci jublu loolu la ñuy tuddee i'tikaf parce que mi ngi jógee ci aatifi na akafa akafa bi tekki euh, sukk toog ci kanamu ci waa toog fenn benn bërëb goor fa loolu lay tekki mooy le fait de de de euh, nu mu euh, de se cramponner quelque part Et donc ça, euh, il faut avoir l'intention de le faire. oui mais ba pare mais nak i'tikaaf jàkka rek lañ ko mëna défé mhm. lool moy mooy condi loolu moom moo ko par exemple yenen xétu xalwa yi mhm. moo ñu ko tudde mom i'tikaaf motax tax alquran ne wala tubatirun wa antum aakifuuna fil manam maanaam bayaani la manam luy leeral né ah ci jàkk lañ koy défé wallahu taala alam mhm une dernière question. C'est ouais. la J'ai pas compris le lien entre Ourwa ibn et Oum Abdallah. Ourwa ibn Zubair et Oum Abdallah. D'accord. Urwa ibn Zubair ibn Awam, radiyallahu anhu. Hein. <coughs> Sa maman. Moi Asma bint Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu Asma bint Abu Bakar moom mooy mag bu jigéen ci Aïchatu bintu Aboubacar radiyallahu anha baax na Aïcha bintu Aboubacar boobu radiyallahu anha mooy soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñu jox surnom Ummu Abdullah kon ah kon kii tantam la Urwa maanaam euh, Aïcha tantam la Ummu Abdullah boobu mooy sayyidat Aïcha radiyallahu anha ah,